maay xaritu sàpp déggin daat saay soo déggee dexim si pasi pasi man la dee jógee It's time for Semester Avenue. Let's have fun. bu ma doon ñëwee fii jaar na more than five different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma ma fay xaalis. ba ma siga naa naxari ma ñëw suma oon dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo mhm. fu ma may fay xaalis loolu jaadu. naka woon sa holiday. it was all right it's, it's fine I seen dëkk baa ngi naaj bu affaire yi la su ngelaw bi mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. foo naa ne c'est perfect time ak yooyu. dama just ñëw rek dama dama ñëw ñëw ma holiday dama dellu si. so I left here since 2015 uh, uh-huh. so Domoda. <laughs> man Durang Durang. Durang waaw. you it with loxo or with kudu. I with hand. with hand ah, ah sama saan hand. maa nekk borom boos. ban boos. maa nekk Serigne Capacol borom ba maa dem lu ma ne yow ne gisoo dara gis nga fii ku fi ñëw rek xam ne Then Dendro. Nakam? Yuvan Yirhaman Arabiya. What's your name? Suleiman. Huh? Suleiman. Suleiman. I love you. I love you. You love me too? Yes. Yo, so Thomas, ma Thomas, ay mbokale na? I'm young. Aha. Gis ngeen yar leen seen me yi ñu dégg olof. ñii nag dañ yar seen doom yi ñu dégg olof ñu ne li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw my sweetheart my auntie my everything jigéen ju baax a ngi nii jigéen joo xam ne defu dara jël nag bu leen jaay def ko fii def ko fii def ko fu ne si ne nii rek yaa ngi fay yaa ngi fay askan bi yow kan ak noo tudd may ami bule ami bule foo def bule si xool bi si xool bi ah kon daan nañ si loolu ban dëkk nga and naka woon sa holiday ah, waaw soo enjoy nañ ko waaw sant yàlla bu baax ñëw rek mit famille gi rek loolu contentement la waaw kontaan nañ nag kan ngay nuyu jamono ji ñu lay ah, maa ngi nuyu ñëpp nag surtout ñi nga xam ne ñoom laa fekk si woon suma yaay di ñaanal suma papa yaaraare ko ajana ak suma famille yi ma fi bàyyi yëpp maa ngi leen a nuyu di leen wax ne bi neex na enjoy nañ ko dara melu ni sa réew enjoy nañ ko moom trop sax wax dëgg ne yàlla waaw. xam naa ne nag mbayeen njaayeen nga te da ngeen bugg a lekk yéen mbayeen yi bu baax a baax a baax waaye moom doo ko dara léegi dama bëggoon a xam si wàllum lekk yi ban side nga gën a enjoy o ban ban mooy sa favorite. man nag sama favorite moom wax dëgg ne namu ma woon lekk yi nit dañ ko dee toog a fële waaye nag fii na lekk yi neex nañ because yëpp dafa fresh wax dëgg ne yàlla man nag benn cin mooy sama favorite kan moo la fi toogal benn cin boo xam ne moo gën a fata. ah am na suma benn sista boo xam ne na ma ne gaas. Ah. ceeb bu neex ah, ak suma benn mag di neene jaata kuma bokkal benn yaay ah, ah lekk naa ceeb bu neex de waaw. loolu nee naa dégg jamono ji ñu gis Gambia ak ñu naka nga nekk di gisee Gambia Gambia mu ngi dem oo demut. waaw mu ngi dem nag waaye not comme niñ ko fogee woon wax dëgg ne yàlla waaye mu ngi dem nag because yoon yi moom am. wa xëy na fii next year dina gina improve improve Wah, to airport bi mom. wa diga ne airport bi war nañ se because wàcce si flight del boss boss bi nga duga rek dafa doy waar jere jërëjëf ñu bay la dafa mel yaangi bi wa way content na lol pour mit la f. Okay. Moka dara daaxu ko gis ngeen nduro man ak bay ah ñu ngi nonu nduro bam jeex tak. na tak taka tak ñu ñoo fly. Ah, okay all right. xanaa xamee ma non xamee ma la de wax dëgg yàlla yàlla non flight ban ban flight noonu non non non non tuda man Baboucar laa tuda ah. Baboucar naka Touré Touré ah. eh, Touré manding moori tunde naka naka naka ah ah, ah Touré moori la rek ah ñëpp xamee nañ ko noonu anyway yeah yeah maa ngi dellu um, Manchester UK oh, yeah oh that's great nga nuyul ma waa Manchester wala maa la naa nuyu waaw noo tudd yow man may Fatou Samba Fatou Samba ah Gambian talent ah ah kañ waaw mu go ah, ah, gaay ma enjoy nga yeah enjoy naa ko bu baax definitely yeah it was good yeah yeah definitely ah, nuyul ma ñëpp ñëpp nañ ñëpp nañ ko dégg nga nuyul ma waa Angleterre nuyul ma benn paa mu ngi fa mu ngi tudd Cheikh Bari moom nag sama pap la duma ko wax dara dama tey nag tey damay tey oncle bul sori harma maa ngi ñëw kii sama boyfriend la kan yu ah sama boyfriend la kan yu imagine ken ngeen mo Makoli mo ma fi <laughs> ah, wax yeah waaw maa yaayam ya yaayam te te te te ñeme ñu ma yow dina ma lii si vidéo si loo def ma ne maa ngi sant borom bu baax olof boobu si lo de maa ngi sant borom bi bu baax yow yaa tudd nag man may Alassane Diaw laaj ko du Samba te sama papa Badou nga koy ah su oncle Badou dégguloo ma ne la oncle Badou. fi benn oncle Badou yéen yéen a ngi gis ñii ñii. ma ne Aliou ko ne ko oncle ah. bi moo ñëw si kër gi. Ah. di sappo Badou Samba ah. moom moo dee jàpp xale yu jigéen yi. di def lan ne leen soo leen ngeen saay daf maa dóore <laughs> que dafa ragaloon dafa dafa ragaloon Badou ci fi oncle Sool. jamono ji ñu gis fooy dem ma ngi delluwaat Suède. macha allah hmm. fa rek. sama boyfriend foofu la nekk Aliou Makoli. Aliou Makoli yow ku ñaaw kooku noonu. dama ko nobba nobba nobba sax ma ne waa yow Aliou Makoli. jabaram anti kenn nag xolam baa nge buju baja. ah baax na na na pot poto anti kenn ko daa xade. soo nekkoon sa holiday. it was nice. enjoy nga ko. trop sax. soo demee nga ma Aliou naka la jigéen ji tudda suma xarit bi ah, Awa xoolal ni suma caméra bi suma jaam bi kooku suma sanga bi xaw ma sanga ni ko bi yàggul rek bu ma bi maa ñëw si famille déedéet maa wax ah yow ok waaw dégg nga ah, sa wax la sa wax la approuve ko loolu waay ah, waaw parce que suma mag la <laughs> ma ne holiday suma jabar mbég na ma enjoy ko trop suma jabar moom fu mu daaw na mu nga ne waaw ah so moom waa ah, ah yaa yaaga na kon yow bul dellu ma ne def na ba baax ah, waaw eh, feeñ na ma ne mu ngi leer ma ne bi ma ñu ma ngi xale ñuul waaye tey moom maa ngi leer <laughs> waa sa man ma ne ah. ah man dama la nab léegi bàyyi naa allo ah bàyyi ma discours ko moom jëkka fii amul discours ma discours ko mané ma i maragal mané wa baxna baxna parce que lu ko moy rek ah. duma mëna mun ñun ñaar doomi nijaay doomi baajan leen so su suma ko nabé ayu na jabaram ñoo ñu hé papa suma nijaay la Badou Samba ah. waaw nijaay Badou waaw oncle Badou Samba am yar oncle Badou oncle Badou <laughs> so sa holiday bi xamna né ne nga té da nga bëggal a ban ci lekka yi nga gëna enjoy ci bu jën penda mbay ah. waaw té suma jabar mom daf ko dé bolé ak sipax wax maa la ko wa na ko ko bu baax sax waaw boo ko lekkee gudd na loxo ah waay non boo dama dee jël loxo nag parce parce que mënuma loxo ban kër ba nee te bëgguma ñu simi fa caale xam nga kuy sëy joola moom moom suba moom a gisa ko waaye ni ni ñu ma ñëpp jabar nga ne la yaa ngi. anamu dañu war a dañu war a wéet dañu war a la. wow, kabarin ako diga yo. Alam mo kulikiya la daha. Why can you imagine the boy is here, na the uncle is here, na the pa is here. Fatu ko, def ko, def ko, def ko, def ko, ni ko You know what I'm saying? Naman ni Rusnak. Kira mo ka ni Ruski uncle. Assalamu xam nga you know I I am very. now now you know what. we will come this way. I xam nga sama caméra woman bi kooku dafa bari problème. bari affair. I demal nii demal ne la te ma loolu rek laa bañ because overcast by itself. yeah <laughs> so the problem. Ah, but I must tell you it's a pleasure meeting you. Uh-huh. I've been known you for a long time. te yow tam suñ you know ba pare sa jëkkër suma xarit la you know pa os lu xew ni mu di ruus Sonko yow tamit waay am nga bàyyi askan bi tur bi ak sant bi rek Boubacar Bachilew why why man I'm not a semester now. Well, well you were not a semester now. xam nga gars yi xamul la yow last time ñu ñaara bokk a flight. so xam nga te ñun yu yàgg yi ñun ñoo xam dëkk bi ñun ñoo leen wax dëkk bi naka la faree taajoo so oncle balaa sama dugg si yeneen ak yeneen bachili xanaa da nga Musa Yali bachili. no you know benn bàcc name bi rek la uh-huh. but um, tey rek yeah because tagal ma yow sa man is from Hagan Street Newham, xam kunda mm-hmm. stuff like that suñ mam yi jógee yeah why suñ papa yi fii judo and stuff suma yaay judo uh, Gloucester and stuff yeah tagal ma yow sa ndomin matta galla suma bacci man may fatou samba samba biranduma nak jàngil len madem ma dem ba mbëri xuja jeey so ma tagge nak ne ma njaayeen ba ma ne maa ngi nii nga ne ma juufeen bi ma ngi nga ne ma menden bi ma ngi sant boo ma jox ma ngi li yow la bëgg ñu taga waaw man may boubacar bacci li sampeere ma ne maa ngi nii soo ma nga nga ne maa ngi nga ma si ma ngi dama xam yow la ron <laughs> bés ni ah, jot naa la mm. oh, World Cup. so I, so you won. okay okay. Ah, um, you know yow da nga nekk an icon in Gambia. xëj uh, na ndaw yi xale yu ndaw yi ñoom ñoo la xamut waaye fii ku fi nekk di def media te jaarul ci sa boor honestly borom xamut lu muy def man maa wax lii. lan moo la inspire lan moo la dugal si yëfi ay cam loolu la wax si yëfi media you know it and I know. Man, I started with camera when I was 14 years old. You wouldn't believe it. Sma banner, sma that uh, a friend of Monyo one in the camera, those sliding cameras, you know, still pictures. And, you know, he gave it to me and I didn't have a clue, but I was excited. Then we had my opportunity. Well, we had St. Augustine's. We, we had the opportunity to do photography uh, in St. Augustine's. So yeah, uh, I America. I joined the military. So my passion, you know, during my off time, I bought a still camera, and from there it took off. Then Yala Dumbale was in the military, where I studied film and television and became a combat filmmaker. Yes, so non me Then early in 2000s, Bimaneke, California, I had an opportunity to make my first film, which was called um, Exorcism the Movie which was budgeted for about $2 million. And right then and there is where it took off. Yeah. Abi yo am nga xaalis ha? Waxuma la lool de. Did déedéet suma listi ha Aksi si wax bi bu ma ko investigate cappa ko cappa ko cappa ko ma No, i am not ham ham. am naa Am nga xam-xam. Waaw. Waaye amuloo xaalis. Non du ma wax ne aw ma xaalis am naa ham xam Waaye waaye am nga xaalis. Du ma wax non du ma ko si mën a boole. ñu ko dégg ñun ñaar rek la. non non ñu ngi koo dégg. <laughs> caméra baa ngi ko mën a because yow yaa amee mute bi. <laughs> Eh, uncle eh, you know comme ni ma ko waxe rek eh, naka nga gisee suñ Gambia media you know nekkoon bitim réew di fa def lu bari but still tamit nga ñëw nga indi ko fii si biir Gambia waxuloo ne rek gars def ba danga ñëw yo it nga di contribute sa part xam nga man lii tax ma gën a push the media in Gambia mm. fekk maa ngi Los Angeles was 2012 I saw a lot of people dying going through the back way so suma benn cousin Ismaila moom tam he he did a movie called Once Upon a Time in Sahel so bi ma understandee the concept of the movie ma ne waaw so many people are dying in the sub-Saharan desert what can we do to support the young people so that's why we have uh, the name Sahel Entertainment and everything we do has Sahel because we're always trying to figure out how to empower young people itself. Why Gambia Media is a very tough uh, business to get into. Why fuck new Pusco, you understand? But you want to understand, Tamit, you cannot just be in the media, but faking MLO support through advertising and stuff. Why people in the Gambia, I don't think they believe in advertising I don't believe that, you know, when it comes to visual, they don't really believe too much in it. I'm not going to say they don't know, they know, mm-hmm. but then ko have. so Lolo moo ñu a resource mm-hmm. bu ko defee ñun tamit use Lolo, pour gën a mun to develop halei. yi mun ibi more studios understand nga mun def internal work You nga xam ne moom Sénégal moom ngaa uh, Nigeria even in the US itself because yeneen yu bari soo gisee suñ quality of standard nekufa is not because they can't, it's because the equipment is not there. Mm-hmm. You understand? And we've been pushing this, we've been pushing it. It's very tough, but I would say media houses in the Gambia, they're doing extremely well, being on their own mm-hmm. and not being supported. And I think this has to change. Understand? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. media Gambia i ngi am leaving. dama quit foog nga man naa give an example uh-huh. we've set up Sahel Entertainment bi realized, uh, market bi was tough we didn't quit we tried another area but we are still in media like right now You can say agriculture understand nga so we are doing a lot in the agriculture in terms of visibility pour one suñ béykat yi coono yi through so I guess the ne fu mu nekk I spend most of my time in the field doing filming and also I, I still do farming, you know, which I really enjoy. Yeah. I think ndaw yi war ngeen a dégg bi dégg ngeen ko ñun ñëpp ñun mun a nekk si media ngay def media nga gis ne demut mu ne nga jël di other way around still yaa ngi media I respect you su la respect on benn gën naa la respect euh, jamono ji you know euh, ñu ngi la gis si airport bi waaye airport looy def airport da nga dellu naka la fa taajo. non non non man delloo nga def euh, Mrs Samba or Mrs. Juve there, Longoma. POJ. Yeah. And right now, uh, I just came to uh, drop off a family, but I will be heading back to Sierra Boloncono, you know, to do more rice farming because dry season is starting. So check us on Facebook. You will see I'm always uh, pushing, you know, some of these issues that are uh, that the farmers are facing, and I will not stop until we achieve rice self-sufficiency by 2030 according to President Adama Barrow mm-hmm. so suñ la foog ñu toppa ko foog li wax you know ne dafa bëgg am rice self sufficiency ñu ñëpp for ñu jóg taxaw the media should should play a bigger role in it because that way ñu mun di brand the way the rice is coming out. No na nekk di wax ñu ne ma dafa NPP nga parce que lu NPP rek dina gis ko da ko. man la straight up you know um, I'm NPP that's I believe in whatever they're doing, you know. So that's not a problem. I'm MPP. President Barone Man um, I did the documentary uh, National Development Plan 2018 by 2021 to follow now President Barrow for those two years. And it was all shown on TV, uh, GRTS, QTV, Star TV, online. The man is working. The man is working. I'm sorry munga because you didn't really take the time to see Lumodef. That's fine. Why was my own opinion, Aklimagis, Aklima film, the man is working. The man is working, you know, President Barrow is working. Balanko Hamrek said us agriculture before Nekani. He's got a lot of tractors coming in for the farmers. Fumnekani Bosedlo projects here right now, they are all coming in in full blown, you know, put Dimbale Bay Balanko Ham farabi. you'll see. People are very happy. You know, they, they've seen an improvement. I mean, since 1948, Munino developed, uh, uh, uh Munino achieved nothing in rice. say Lord, this time, we've, we've went bigger in terms of uh, um, the amount of uh, production that we are doing right now. You know, so Purman, I'm telling you, the man is working, and I'm telling you right there, why, yep, that's not so. I know I'm going to get hit on these things, but I don't care. But he don't care and hit kong and nyaka ko hit kolam lawa. Uh, President Baro, if you are watching, then support what we are doing. Nga ham na nyun tamsi youth sila neka. From neka, nyung buga sink. No, man, am not nobody. Man ganari, kena nenuma. Man, am Gambia. But President Baro, I said, support what I'm doing because I am here for the youths. You get jangal ndawi for free of charge. Japa sila nyo def. So ko japu tiyan nagrek ndawi de nyo mer. Jamono ji. No, na si japa because mom tam dafa buga ndawi dem kanam te man gis naa yéen li ngeen train I follow you very much you know I I see the improvement you doing I think and yéen are one of the few people ñi nga you take a whole lot of uh, young people and try to develop them in the skills and that's why I have so much respect for you and I seen you a lot I follow you I know you and your husband is my friend. So talk to President Barrow. Welcome on Monday. Mange am graduation very soon. Uh, Matt invite Nala, inshallah. incha send message and then ñu mun see wax waaye den dinaa président support ok man uh, li ma suggest in communication boo bëggee I would suggest get them through the protocol. that's the ah, proper person you are you are a communication. def I I I have written. you don't give up as a communication person, you have to strive to get what you want. All right. Yeah, exactly. All right. They know who you are. Ah, You know what I'm saying? Yeah. okay. <laughs> All right. So nakakagising sa Mesa Avenue. Man, I like Semester Avenue. You, you know, you you highlight some of the um, the the, the uh, semesters itself, which is very important because know, they need to be recognized. They do a lot of things in the country itself you know, instead of the negative side of it, ah, semester, semester, semester. But you know, they they they shaping the country too. ah boo defee loolu moom dañ ñu tasee boy raam xam nga boy raam <laughs> ñu tasee si dëkk ba waaw ah, si laa gën a neex nag bu ko defee olof bi change ah, yeah you know yeah <laughs> uh-huh, thank you kon nag Musa Bachili sa benn mbokk am bi Bachili Kunda you know what I'm saying lakkal ma saraxu lay tuuti lakkal nuwaari waaw mooy jërëjëf. waaw jërëjëf waxal waxal waxal nuyul nuyul man ah, ah oh ok. Ah, mooy. ak mooy nan ah. léegi-léegi nga wane um, most of the time pour man rek asalaamaaleykum rek. yeah or maybe ankarajam and stuff like that. Hey, Jenna, thank you very much. Appreciate it. Summer Savino. Igor góor ku ko am di wax bi say, saay soo fi làkkee anglais mistake fàttewuma la dégg nga bi dama la nop maa la maa la la at any time de ki ki may wax ni ki bu len ko falé dama la noba noba noba noba wala man no bu mal man suma dalé nit ñi yow nabiya yami baxu sant yalla nabiya bi moy ki moy nit ku baax jigen da nga melni man jol <laughs> bay ba. you know what I'm saying. you know what I mean. kan mo ñu topato tay anti. anti ga. yo jela ma li sinipes jela ma ko sinipes bala ma delete fatu ko si groupe bi. anti kaay. anti ken. dama am pour silence turam bi because of you know tay. There was all everything from flight, so I need to remove the old ones, you know. Ah, the Sanico. Sanico Philip, I'm class. <laughs> Auntie Ken Mughal, we love you to the bone. We love you in our heart. Everything is Auntie Ken again. Mm-hmm. Mom, you're gonna see. Nabi, I'm not gonna your My feet of a The dollar. Ah. The back. Ah. The year, the tubay. Ah, then ah, then, naka. You don't call it English. Ah, glass. The glass. everything is anti-car we will you will love you will love you babu babu nuyu naa la koy nuyu man Sidi Laye Mbaye moom la moo mun ndeysaan ak seen bés bi ma arrêté kii moom moo nekkaloon xoola yow jëlal ma ko góor ji man moom si suñu arrest bi moom la mu ñëw rek mu ne ma comme bi see you stop comme comme comme but you are now my good friend You know, airport, maybe have this Of course. Me, you'll ask me, not to that. Man, forty. Fodi naga. Jata. Jata. Yes. Johan guys, and number. Kuma buga. Te hamne fatu mungi def lu ba. Yoni len ko halis, ma len ko wa, bu len ko jaarale suma loxo. Nalaga yoni halis, góor bi soo ñëwee si airport. rek mo moo Johel, joxe sa number Johel, Johel, Johel. they must have it. Ara ara ma ma jox sign su ma ñëwee rek ma joxe ko. mungi hajaande bugul haalis jata kunala moki musa jata mu madan ares na mu ñew ne yéen mis ni ki tey sérieux leen dama leen delete billahi tu leen ci groupe no no hage xame wuñ la ci biir nit ñi moo so moo tax mu jema ñang jeng la laa nappa li mo de tax duma de ne xam nga mu ma discriminate xame wuñ la ci te dafa am lu tax dara dara de Ah? gàtt kese de gàtta yaayam di ko yootee ngool bu kayam mm. maa yaayi baayam di goro yaayam di xariti maamam law la cet law la ma laa laami muy jaljali <laughs> law la cet law la ma laa mal mu caccagin eh, laalal bant <laughs> non laalal banta man ma laalal suuf mu dem si kaw laalal suuf mu dem kaw lay doon ah, bu ko defee rek baabu eh, tey moom jigéen ji moo ñu sansalati xool ma xool ma anti kenn bëggul di seedi la may ji jigéen ju man góor moom fu mu dugal loxo mbaaxul yal na ko yàlla bëggoon naa wax ak yow ko yàlla la fay moom seedi la mbay yal na fi yàgg a teeweel man ña xam ne su ma rafetee la solu seet rek andi kenn moo si jaar tey lan la jaar mbontor bi uh-huh. ak muba bi uh-huh. ak yëpp su ma naasee rek seedi la mbay la paquet bu ees pour la jigéen ji joxee ba pare nag ay bu leen ma ko lii bu leen ma ko lële yàlla kan moo laa defal lu baax doo ko wax. ma ne ko anti kay lay du la seetaan nga fi ñaaw dala bëgg. e lay du la seetal nga dala eh, bëgg nee na yow a nee na yow a nee na yow a eh say paaka dafa ñëw say jaasa ñëw eh nee na yow a dellu <laughs> waatal si loolu andi kenn yow wuyal man munir woy mi baabu dina ko dina ko lii naka la. dina waaw man ma ñu fekk ñu fekk andi kenn taxaw ñu naan ko waa andi lu tax nga rafet mu ne ko lu tax ma réew lu tax ma réew am jëkkër ji ma nopp man mi moo tax ma réew mu nopp ma ba ma xam ko lii moo tax ma réew chéri laay lay doon chéri laay da koy jëndal or moo tax mu réew e buy dem liggéey da koy yóbbaale te ka si wetam dina war mu koy xool mu neex a neex a neex a neex a neex a neex yaa tàggal mu sëg jalax ko mu daan boom boo sakk di jooy mu na paaja ko woo leen sukal balaa mu rojeex tànnal ma ca li ne tànnal ma sa tànnal ma sa lay mbay tànnal ma sa anti kenn nee na yow la nee na yow la nee na yow la mbay mbasu mbay mbasu mbay mbasu ah su la neexee nga ne ko nii su la neexee nga ne ko naa ah su la neexee nga ne ko gu gu gu gu gu gu yow loo na ma laay loo na ma laay ana kenn waxal ma ko laay อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรmay masu xam nga leen moom naxari to be honest ah anti kenn dafa baax waaye jëkkëram laay maya bon maa leen wax am serious ma ne dafa baax waaye laay may Sweden laaya bon laajte ma lu tax lu waral loolu la kan yu imagine dama xam laay laay Leka du ko dee boole ak kenn laay mun na moo joxe million waaye laay du dee leka. oh my god this is heart touching I am crying. Don't cry, baby Fatou. Don't cry. Laay neexal ko, laay neexal ko. lay may sama xarit bi moo mun a maye xaalis moo mun a maye moom yaa bëgg sa jabar kaay bro kaay man kawar bi rek a ma neex this is how hair should no bro kaay waay bro kii rusloo na ma gis ngeen kii na dafa aj kawar ba nag bu si kaw ba pare na ko dugu dugus dugus dugus dugus ah, sama saabeñu caméra suma caméra woman bi faatu dama ko delete Nabiya Ka yaa ngi bugg a ku ñiti ñu gis la xam ne anti kenn moo la sa kanam nga mel ne netatu kaay ma ne ko kaay can you imagine yéen a ñit dama di ñëw ku war leen naa interview war a wax yi Nabiya can you imagine gars yi di ma def yéen a yoo xam ne sama yére bi nga sol tey de. yow maa abal li yow maa abal xoolal rek fu em de nga xam ne man maa la. la roba ba lay nice na floor you know what I'm saying lo sama pada hasar roba bini ah. mana masa yang sa wow waaw andi ken jar andi ken mau solo who is this semester i want to know can i talk to you ndeysaan gambia lina rek ko ya, ha semua ma sweden garden day welcome wah semua nyuwe gambia semua ma ki gambia ni ñu nabi kai nabi kai wow jigen bu liggéeyal gambia angin jigen jigéen boo ne ne women advocate mom la honestly auntie just one minute danga liggéeyal Gambia no I know but one minute ay suma doom lay góor bi na man bëgguma wax ak boy sa yow laa a waxal ñun ñu ngi nekk xale start si media kii leen daan gis su ñëwee mu nekk black beauty boo xam ne xool bi set wicc maa wax kenn waxalut ma ko kenn moomut ma salaamaaleykum aleykum salaam Fatou nag ngeen jur rafet sa black foo ko ame Fatou dono la rek ñu bàyyi dono rek la caméra bi nag waxal gaay noo tudd ak yaay kan Fanta Baye Seka deputy permanent secretary ministry of health anti Fanta yaaga nga si yëfi health yaaga nga si yëfi jigen lan mo la motivate nga dugg si fiil bi wala motivate Fatou mo dugg si fiil bi mooy man dama am very responsible parents ñu buga sendom. so nu empower ma and ma feel ne li am a childhood I can share loolu ta moom moo dugal si advocacy bi. suma doom mooy delluwaat. waaw mooy suma caat. caat xolu yaaya ay yaay daw nii <laughs> kooku anti Fanta Baye Seck mu nekk jigéen joo xam ne dafa mun góor ah, jigéen joo xam ne ah, si liggéey rek nga ko dee gisee hi how are you hey ma xoolee nu def nii dama tiit baabu <laughs> baabu is Gambia mu ngi diggante damu ñëwut diggante la tollu bro kay dama bëgg xol gor bu ñjol kay kay ah ok ok ok na yow riidu lo li sax ba pare nga ne ko dama mo daf ma lay rus. juuf la sañ jang bi sóorowut moo tax. juuf mu sa diga juuf bu jàngul. ki kii moom bosam sóorowut juuf. dañu Alaaji Moodu Juuf sa GRTS ah Alaaji modu Juuf fiess ministry of youth and sport ñoo yëpp Diouf leen sant gis nga ba man dama jang bané ar man man dama jang bané ar matam dama jang bané ar waaw waaw jang nak kenn du ci dé bolé waaw dégg <laughs> non mo tax ma jang wala <laughs> man daf ma dee rusloo rek suma ñëgé la ki ah yu amo ñëgé di dina uta doomi tuba mu nekk sa ñëgé how are you come come come Come, come, come, come, come. Hey, eh, when are you go? When are you go? <laughs> Seven seven. <laughs> yes, you look very beautiful, absolutely beautiful. Can I talk to you? I'm in a rush. I'm so sorry. And what's your name? My name is Kemit. Going where? Spain. Spain. Yeah. Oh, is this your first time in Gambia? No, my mother is from the Gambia. What? What's her beautiful name? <laughs> Aisatu. Aisatu Naka? Nyasi. Nyasi yeah when you go hello <laughs> hello bye gis ngeen doo leen dee gis nit rek ngeen foog ko beneen nationalité tey maa ngi bëgg a daanu hey xam nga soo sensé sa roba mood looy def atee bo jos atas tas atas tas fàccu lay doo bisis agar agas taaj Gambian next world. I'm not gonna be a Gambian. Can you imagine? Some people them on Musuma do plane. Best nikitay da maposu manatali na biakai. Best nikite. Honestly, I'm going to post my pictures. Bye bye. Yama daha. Hold on, you know my nice. Antiken. Antiken mo fi jaar. Antiken dal. Suma ko waré ñaanal na ko sagale parce que dama ñaan ñaan ñaan be contane. ah te soo kontaanee da nga dee wax yoo xam ne sax doo ko dee mun a wax. andi kenn mm-hmm. andi kenn moo la solo yére bi. andi kenn ma solo jox ma daala la xam nga a sol jaaru nag. aw ma woon jaaru. Mm. andi ne ma ne xam ma dee bàyyi xel si caméra bi mu jox ma jaaru mu ñëwaat jox ma ceen. xoolal ceen ah mu ñëw jox bi nag. waaw moom dafa sañse ba di sañsel caméra maan yi caméra xumaan yi caméra léegi laa mënut a xumaan mu la wax mën comme ni moo tax ma ne la léegi xam naa ne nag maa ma prononce ko ah. nguman nguman nguman nguman Bestie Ndeye Nabia is fired ma suñ fired rek kenn seetaanati semestre avec ñu ah, waaw moo ko dee maay zoom in zoom out yokkal light wàññi light ah. <laughs> waaw après ini audio yu garaaw sax ak image yu garaaw yi ngeen a gis yeb ñun ñoo ci ja ah cuuru tamit mu ngi si de cuuru xanaa borom lamen mo ah. moom moom lamen kuy duga si lamen rek te na ko no daf de off tay sa jubóowu dibi ah. he mana mom dañ nekkal ni Semester Avenue yes yes nila la semester yi wara mel Wa so la ñëwee di fa xajaan lan la xool leen kii xool bu baat bi lan nga wara def nga ut cultural people you stand for ah nga airport beni you jox la palace, su nit yi ñëwee eh, seen culture dañoo kontaan ah you see what they do in Ghana and other countries that's what you need to do. So ma def ko fii Gambie. laaj leen gaay. fi Gambie bi dafa frustrating laajte ma xam nga lu tax balaa ma dee ñëw ba fii essence du ma ko dee am. am naa loolu. yaay ma yow. am ah. naa loolu ngi cool waaye laajte du yaa dara laajte airport. no problem léegi dinaa dinañ ko appreciate. yo noo tudd Abdou Karim Ndiaye. Ya, semua bokan man sama yayin Ah, ma kon non. Jay banjo na jay. Berkama. Berkama. Wow. Ah, kon man tam jay berkama. ya Yeah, Wow, yo foi dem ni bande ka? Ah, man ngi delu US. US. Kan Fancy US. Ah, Wisconsin. Fofu la musa deka almost. Balo. Serious. Nicolas, no mau ngi deglu affaire ngi cool Dekula Wisconsin waaye mu ngi cool kon Seattle la jërëjëf waa Seattle moom dinan. <laughs> all right so jamono ji naka man sa holiday mu okay man mu okay man uh, what was the best part of the holiday um you know uh family hmm. family just family At mun a toppatoo some other things yeah hmm. yeah

bés ni ki tey yaay sama fan. amul Semester Avenue. ma ne kii kenn interview wut ko kii mooy chéri Amina Mbaye. ah ah ah kañ góor ji Njaay góor Njaay la moo santa si loo ne. maa ngi nii sant yàlla. yaa ngi baax yaa ngi ni nga koy toppatoo yaay toppatoo na moom moo lay toppatoo. mo mo ne kadi to photo ah, yeah wa xam nga ne man tam maa ko to photo hara lañ yo you know how it is waaw ñun waa kër hara duñ ko bàyyi Wah si waaw walaay walaay walaay def yow noonu man Modou Ndiaye Modou Ndiaye yeah Tegal ma sa Ndiaye eh? ah wah non la Tegal ma yow sa Ndiaye Modou Ndiaye waa kër hara Ndiaye hara awa njay hara wa mu gok noonu la jox nga yëpp yeah da <laughs> nga mën a xajaan nag soo jamono ji loo si airport eh? Wah dama ñëw yóbbu ndaw si mm-hmm. ak xale yi ñoom ñoo ñibbi man ma toog mhm. waaw so holiday bi naka la mel waaw neex na trop trop trop ñëw mit leen mit family bi mit everyone loolu rek dafa neex walaay walaay walaay definitely njaay nga sant te xam naa ne moom lekk doo rek because man may sappa <laughs> su nekkee lekkakat rek kon man tam lekkakat laa waaw waaw noonu la walaay waaw waaw ah, non daha ah moom moo ma daha ma papa am ko daha walen baadu Bado. apa pam suma makla. So suma da here amut problem. Deret deret bi benala. Manda ko menes ma para para fede gise suma onkel num bate. Sana ka sindega. Wani. Mata ngay. Oh, no, it's normal. It's normal. Yeah. Fele non. Wow. Ma ngi wara delu. Depuis ma ñewé last time bi nak ma welcome na. So ñewé rek exil. Ah. Yo. nga ne soo ñëwee waat waaye soo ñëwee rek gaa dañoo xam ne ñëwuma soo rek exil Yo lo bëgg nay jaama Yo ñun ñoo far waaw yow ñun ñoo far xoolal kii mu ngi la bëgg a rëcca boo yaa ngi daw yow suma fay fundat bi kaay waaw mu ko jàng jërëjëf jëf waay maa ngi ñëwaat bu leen jaaga ngi noonu lay doon non bro kaay yow rek laa gis kuy tukki nga sol sa wax ànd ak sa jabar mu sol wax nii la war a nekkee cekit ah. baabu kaay interview ko si mool ne si bije itoodu nto sam sam ba lafta fan ngara spain ah, ah. ah kabien yeda holiday spain ñaadi na de, na holiday be data bakele banko nyin abe data bakele ya nda boda janne wulude janne menda janne ndara raspen so ngala file fi fitta nga murna de nga na de la e kaddo mo juma ak dumo non bakele nka do moro men do jam bage hmm. o oh, chebo e bulo la foko ya nka do mo ko jarol la bari bulo wala important da ah. ba ah. ko jigen bu nek ne la ci gannaawam camera jilal ma kele han ah, koku non Namu soro. ato fanta 100 ಅದೇ 25 40 ಅದಲ್ಲೇ ಅಂಪರ ಅಂಡಿ ಯಾಕೆ ಮಿಂತೋಲೆ ಯಾಕೆ ಸೋಗನ ಅನ್ನೋ ಯಾಕೆ ಮಿಂತೋಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಸೋಕದ ಫಂಡ ಬೆನ್ನ ಜಾನ್ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಸ್ ಫಾತೆಲೆ ಚೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಸ್ lah ಯಾಕೆ nga case nyame na wo mu futu wo mu kullo do be buka fo no mo ma aku mau ga jëm na bob sutu dal du nga wax fi babu mi dilit na ko da na ko su liggey kay babu yene naka ko lak te babu yow day na fire semester. Yes. Uncle, whenever I get spy, like old people, I am always happy because I always love old people. And today I'm in love with you. Thank you very much. Do you love me? Of course, yes. Why not? I respect you. Yes. <laughs> and uh, no, Uh, eh, What's your name? My name is. <laughs> my name is Mr. Silla. Mr. Silla. Yeah. naka ngeen di tëggee Silla yi Alaaji Ibrahima Silla yaa baax yow foo jógee ne jërëjëf maa ngi jógee fii ñaani ñaani waaye right now looy def airport non dama war a tukki fooy dem ne eh? maa ngi dem Europe Europe fan maa dem Portugal bés ni ki tey seyal naa la doo bu dem rek ñu tafal ma man ma dem sama doom yaa ngi nii sa doom <laughs> ah, yi bés ni ki tey maay seen yaay mu nopp ma na Bro, bukan lo papa munak. mm saya mufa. Saya mufa. Ada meneka mau wai. Bat manda mau mau hulu, mana ada mana smear wai. Walki. Sulaiman nakam? Very cool. Yano jira? Solomon. Solomon nakam? Sila. Sila. Yeah. So siapa pala? Yeah, semua Mana mau kono? Ada konop. Ah. nyu. ah préparé nag. waaw waaw ah. Ah, léegi yéen soo bugutee paa bi léegi man ma nopp paa kon. Ah, paa bi maa mooy de paa na <laughs> ma. ah ndema mooy ndema mooy. ah suma le. yaa bi jënd i kanu le. <laughs> gala man bari naa jëkkaar <laughs> all right so all safe journey, and all the best there. Thank, thank you very much. Thank so you. When you go there, what type of food do you want to have? Uh, I want to eat. Uh, of course, I came here and I'm eating organic food. Mm. Uh, everything is natural from the fish to the plate on the table. We eat it, mm. not like the frozen fish which we eat in Europe. So these are natural. So from the farm, from the garden to the market, and the market to the table. Mm. So those are uh, what they call organic food. That's what I'm enjoying here. I'm getting the sun, natural sun so we don't stay in heat or heating system. So we have the sun which is hitting us, and all our skin are toned. Love Gambia. Yeah. indeed, <laughs> indeed. So I Alaji Ali moment, guy. if you now see me, I am not Njai, but I am Silla. So anyone Silla, I love you now. You. So now do you accept me and Daddy? Don't worry. Huh? All is good. What is don't worry? A yes or a no? Yes. yes. Man rek. Kuma gis bugama. So bro na naka. Mangi cool. Mangi fine. Mangi fine. Buganga support naka. waaw oh, bëgg naa ko kay. Ah, ma ñëwee si kër bi. ah di ngeen am yaay bu bari problème. amul problème amul problème dina la dina la accept. waaw ah, dina la accept dina la accept waaw su ma waaw su ma su ma tas nag ah, tas lu tas mais defar kër bi boole ñëpp ñun ñëpp ñu nekk benn gis nga ñun. suba si suba teel mu bale kër bi. waaw nga toppatoo waaw nga raxas bool. <laughs> waaw nee na mooy problème bi du ma a a waxtaan kat ke mu ngi bari kay moom All right. Yeah, thank you. A high five, all right? And watch me always, okay? Bye-bye. It's semester. Aba I maa gis nii kii ñun ñoo yaroondoor mu nekk ñun suñ mag biir dëkk boobu noonu fu mu dëkkoon taami xale na mu nekkoon ndaw maa ko yar. ah loolu am na. nama naa la trop wax loolu na su ko fekkee ay fa man mag laa te fekk yaa ma mag xonda den ite. loolu la loolu la man maa la am na yow suma koñ ñoo juddoo it's nice to see you. waaw mm-hmm. uh, nice to see you. so yow ba ndeka nga jógee. Uh, Dubai Dubai like nekk almost four years so dama your holidays check your family bi mm-hmm. and and do some sport activities like karate you know. Uh huh. And tudd. maa ngi tudd Aliou Ba. Aliou Ba. yaa ngi leen di ah comme ni ko poli di waxee baa moo baa daal soo dee ne always. Wow. sa oh very nice very nice sant you know because there is nothing like home. you know the lekk lekki cosaan yi yoo xam da nga ko at yu you know your family be friends loved ones loolu is wonderful you know. yeah home is the best place definitely. and when it comes to lekk even ban lekk nga gën enjoy. Footy. One popular. yow tamit yal pël nga pël yi du ne fàtte seen cosaan. jeex na tàkk waaw ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom. fu ndege loolu. ah pël bu yaroo si olof yi la rek. ah ngeen pël wolof. ah. yow ko pël wolof. ni ko mi pël la ko fop naa wolof tum Matthew, high five. Let's Kimonyo Yar. Kohamne always is always nice and always bar. You know, whenever you come to airport, small we sometimes cannot take it because you have nice people, but sometimes you have new new body affair. You're ndurunga mako nice. Nyene ni mom na yon yon def ni. Why you danga def? How are you? I'm fine. No to that. My to Abdullah Mahanera. Abdullah Mahanera from ban dëkk nga jógee. man maa ngi jógee Serekunda. Serekunda yes. war fan nga jógee si Europe. Eh, Spain. Spain yes. and can you Spain. ¿Qué <laughs> pasa? ¿Qué pasa? Nada. Uh, Grazusa. <laughs> Gracias. Yeah. Ah, okay, gracias. <laughs> All right. So, how was your holiday? Yeah, maybe two weeks, three weeks. Yeah. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yeah. Yes, yes, yes. And that's Amo. that's Amo. Yeah. Mm. Inerna. Uh-huh. Wow. Inshallah. ay waay waay waay waay yaay bu xawma naka naka naka grâce kim Mrs Balde ak Mr Balde ñu ngi ñëw ñi ñoo liggéey America very very hard working and duñ ko boole wax ah oncle salaamaaleykum eh, waaleykum salaam na nga def ñu naa la <laughs> fay naa la ah, bala ma rek ñu ñëwee ni anti suma rombi rek bi lay tey dama rus maa ngi abu suma broda ngi ni kaay leen please yéen ñaar rek please one minute yéen ñaar gis ngeen jigéen bu seyal jëkkëram mu ngi noonu waaye jëkkër boo xam ne tamit buga jabaram ba buga dee nii la sey war mel dafa nduroo oncle salaamaaleykum waaleykum salaam ef naa def maa to see you yéen ki dafa liggéeyal media eh, <laughs> alhamdulillah it was enjoyable oh yes it was mbaa dem nga fële si dëkk ci dëkk bi ah. waaw waaw dem nañ naka la foofu ma was good you know it's good it's all deserted but you know waaw baax na foofu waaw foofu neex na torop waaw waaw nit ñi bari yu fa foofu neex na wala le ma <laughs> so si wàllum ban lekka nga gën a enjoy ah ñun ñun ñun namuñ dara xam nga loolu noonu jigéen yi Europe suma anti yéen a ngi gis <laughs> ah so ñu bàyyi la rek nga nuyu ah, Uh-huh. <laughs> Bahel askan bi tour bi ak sant bi ak ban dëkk man la Aissatou Balde I'm going back to Seattle Washington Seattle sa jëkkër yi lañ <laughs> waaw deme nuyul ma jom ma number one inside my heart waaye yow it nga nekk jigéen boo xam uh, you have always been an inspiration ñun depuis bu nekkee xale leen la xam ba saa si yàlla tey yaa ngi def ak uncle very very nice and yaa ngi yaatal yoon bi ndaw yi sa jëkkër moom when it comes to liggéey when it comes to métier ñu ngay gis ni ngeen na defe you know lan moo la motivé sëy moom mooy loolu rek am nga yàlla ko santaane waaye su la yàlla boole ko xam ne tamit bugg na la am na sa yërmande pour euh, seyal kooku wala muñal ko moom it's it's an icing on the cake <laughs> yeah yeah it was great we had a great time mm-hmm, yeah we had a great time si wàllum lekk daal yéen namu leen da ñun waa Seattle lañ namuñ dara luñ nama toogantu ko <laughs> waaye yéen a ngi tam ba airport bi sax da ngeen a maajal oh, Ah, this is this was not planned actually. Yep, a coincidence. Coincidence. Coincidence. Accident, Lani. Accident, Lani. Accident. <laughs> suma gars yi nu sense xool leen lii kan ngeen gis jëkkër ak jabar ah ma puus suma caméra woman bi mi na ma puus ngeen gis sense bi man nii ko bëggee bés ni ki tey daal jox naa leen bi 2024 bi yéen a ko ubbi thank you very much jërëjëf jërëjëf kontaaneen bye nuyul ma kii naka maire bi seen yaay waaw mooy suñ vice président baax boobu ga de war a yónnee yóbba xam ma nuyoo yóbbante wuloo ñu nuyoo boobu de boobu yow yaa ma dee wax rek with nga moom dafa ma yàgg a realize it ko moom ma dee wax keep it low and do it high so bàyyi ma do it high bye bye Miss ndeysaan Miss and Mrs Balde ñoom ñoo am seen real estate foofu America. I did def very well and you nekk ñoo xam ne ndeysaan ñoo ma yar fekk I was a baby wow wow wow wow wow unfortunately I don't give it up oo leen jigéen ji oo leen li si loo ne salaamaaleykum na ngeen def ñu ngi fi mucc la laa sama wig bi mu rot de xam nga lan la bàyyi naa la de man xaw ma la de yow mii xaw ma la léegi lay buga léegi lay buga yow oya jaay si loo ne ah alhamdulilah sa meer boo àndal dama ko oya suma yaay suñu yaay suñu yaay mban kenn bés ni ki tey I wanted to give her the mic but I say no. maire bi amul beneen doo man kan laa am ah. waaw. mooy oh, am turam ak santam ah. <laughs> ba pare yow moo xanaa UDP man. ah yélo waaw waaw waaw UDP na waaw waaw waaw waaw. how many percent. UDP hundred percent. <laughs> so so so so bye bye. <laughs> seven damaa xeex te bëgguma kenn ku ma aate yow kaay fii janga ah, dang ma yab ma ne dang ma no <laughs> dama pare no <laughs> koy am na pass she was the one who said it not me am I laughing no and am I talking hold the mic hold the mic hi <laughs> so like am no, but she was the one who said so. I'm not the one who said. I cannot speak English. So why are you speaking English? I, I wasn't the one who said. She was the one who said so. And what's your beautiful name? Yeah, my name is Anjifatu. Anjifatu. Yeah. Jabi. Jami. And I am Jabi. Look at my camera. And I am also Ajifatu. Mm, nice meeting you. So you are my Toma. Without ha having fare to come to the airport. <laughs> yenki senki ah obere ni la madam de obere di now. ah onna ma hana sama sala ya mona nyebe yo fo hamene sama sala <laughs> Monday du am mu gis ko fi mu ko essence bi mu jàppale ko so it seems the same. Uh, Netherlands. Oh, yeah. I'm glad. What? Welcome to Gambia, okay? Here's my home. Thank you, thank you. Welcome. Mashallah, mashallah. That's beautiful. Um, Honorable Minister Bimungini, uh, Kim Sun Minister, a very hardworking man yar ñu mu bugg Gambia lool lool lool su ko président Barrow defutoon minister I would be surprised and people like you no leen bugg a dëkk what do you want me to say? It's the semester you I celebrate people. I talk to people. Okay. At the airport. Well, good. Thank you for having me. I think uh, we have seen what is going on in the country, and let's all embrace and support and see that uh, the Gambia is moved to the next level which is uh, the aim and objective of this government. Tell them your name and you know your role here in the country. Uh, I am Lamin Bidiba, Gambia's ambassador and permanent representative to the United Nations. Indeed. And you used to be our former minister. And also former minister of environment, climate change, and natural resources. Indeed. And Lulumwesa area. Yeah, thank you. <laughs> Yes. Thank you. So where are you going right now? Uh, I came here for my annual leave. I'm going back to my duty station in New York. In next week, can you invite me or next month? Anytime you're ready. I, I, don't want to stay, but I can be there just for two weeks. Inshallah. Inshallah. Thank you. And we're proud of you, and we're also seeing your contributions here in the country. Well, that is our role as citizens. Every Gambian has a role to play. Regardless of your position in the country, you have a role to play. Be a farmer, be a, a social worker, be a minister, be whoever, we all have our different roles to play and together we move this country indeed and i'm proud of you krap gambia tay dama gis figo news nek ki ni la ñaawé yow man ma fagon ki dafa ñool nek ni la am yow sa kanam gaay ma ngi leen nuyu yeen ñep kenn nuyu la fi wa fa sama nak ay attack la la def wa gaay man dama nu sama nuyu ko faalewut ma ñëw dima ma jox mic bi. way figo ndeke yow nii nga em ni man. <laughs> waa gars yi léegi yéen wax leen digga bi rek dégg ngeen. waa léegi wax leen maa moom ku sut. déedéet ndeke yow nii em. waaye man ku ma gis foog ne man daama laa xanaa kooku kooku moom du xool. yow caméra bu ma kii yéen ndeke figo nii la em ne ndaj. fana fana ni koy waxee. dama man. ndaj waaye yow yow yow Fatou Samba yow ah. ok nañu wax luy luy luy waxtaan bi laaj ma loolu waaw. waxtaan bi yéen man dinaa tasee Figo duma wax ak moom. waaw gars yi maa ngi nii nag suma sista la Fatou Samba airport lañ tase Gambia Talent waaw ma ne ko ne bii moom bu leen wóori liggéey bi ñun ñoo ko bokka waaw wan Gambia jàppaleen foofu noonu rek waaw Fatou Samba nag wax dëgg. yow nuyu naa la jamono ji lay def Gambie. non ma ñëwoon holiday ah two months laa fi am mun des na two days rek maa ngi ñëw on the second December waaye holiday bi fu mu nekk nii alhamdulilah maa ngi dellu nii. di xaar delu, laay dellu nii maa ngi si yoon si yoon laa nekk nii pour dellu. waaw mën naa yow fan nga dëkk ak eh, fan nga jógee. Ah, maa ngi dëkk Bologna waaye fu mu nekk nii volin laa war a jël dama wàcc Barcelona war a jël beneen flight ëllëg si suba laay àgga eight o'clock waaw. naka woon sa holiday gam. waaw alhamdulilah alhamdulilah ñëw naa inyo na Gambia na bi na nag waaye waa ligi liggéey bi tamé xamna fan ci tamé gej nañ ma sobe way ma ngi wax gay rek gay ma ngi ñu wa sobe yalla elek nañ continuer. so figo wax ma ehm, Gambia lan mo la inu won da nga jës ñew holiday da dafa am bena mir moy toga fi ah, xam nga ci xalé yu jigéen yi ak duma ko wax kenn. Gambia dama ñëw pour séti suma yaay xam nga waaye because bi mom géej naa fi léegi two years ñëwoon naa fi woon 2021 waaye 2022 bi mënoon maa mënumaa ñëw ba 2023 décembre bi because ma fi ñëwoon dama amoon issue bu ndaw suma kéet bi moo moo fi réeroon soo ma demee process bi pour balaa maa jot kéet bi dafa xaw a jël time soo mënumaa ñëw ah, ya bële passé 2022 soo ma ne bii bàyyi ma dem ma seet maire bi gis famille bi jël benn two months waaw xool situation bi ak Gambia bi dox gis naa lu bëri waye lolu suma ma dina ko wax waaw comme ko waxee fi ñamal ñu ñamal ñu fi go ñamal ñu ñamal ñu aja ñamal ñu no bay no ñamal ñu waaye duma ma taxaw ak yow nga ko bëgg boobu boobu dama promis suma gaay yi ne su ma demee ko wax gos waaw bay ba ma dem rek oh, Fat Samba waaw jégalu rek bima ma dem waaw dina ko soobee yalla bu wori waaye waaye na waaye waaye waaye nak ñangal bi buma la doon o Fat Samba Fat Samba ñangal bi bobu bobu noko mu ne ah. waaye léegi lu ma jaaxal ah, a lot of people ñu ngi wax ne yow all the time Miss Jobis Miss Jobis ah te Miss Jobis programme ma ngee ñëw yow ngay dem waaw dëgg la nag billahi ah, moom sa gisante naa ak moom Q City waxtaan nañ lu bëri wax na ma loolu ne ah, dina kontaan trop mu pour mu am ma si soo bi te man sa su ma sañoon billahi dama ko doon atteindre waaye comme su ma liggéeykaay dañ ma communiqué dama contact barki démb ma woon ma ne février on the 7 dama war a liggéey ma ne gars man su ma Ah, ticket bi February 14 la ñu ne ma man suma boppa xam naa ne February seven dama war a liggéey so aw ma option so foog ma dellu te a ah, Miss Jobe bi sax mënuma ko wax sene comme duma ko atteindre mun naa mun naa am si vidéo bi la ko gisee sene fiigo dem na waaye am naa nombaam am na dee bu ma message woon ma reply ko ñu doon waxtaan suma jabar nii suma jëkkër waaye gis nga ma ko mënuma ko wax sene maa ngi because promise naa ko tamit ne dinaa ko atteindre waaye comme situation bi nu mu rek waaye maa ngi jégalu xam next time mu ngi foofu noonu waaw so Figo nga nekk si uh, media you know Figo News ngay def a great job uh, Figo noo gisee media Gambia mu ngi dem ndax demut waaw boobu tamit dégg la media Gambia dafa xaw a dafa métti trop waaw dafa métti nag waaye gaa ñu try nag mun naa wax yéen a a a baax a baax mënut a sometimes saaga bi daf dee ñëw critique bi daf dee garaaw bosante bi am na ñoo xam ne sax dañ dee wax loo xam ne ñun mi dee pose sax dañ dee gis ne comme borom waru koo binda wala waru koo wasi suñ comments yi waaye na nit ñi understand ne loolu tam nekkul si ñun ñun dañ dee pose rek ku nekk may nam la dee binda am na sometimes yoo xam ne sax ñun sax dañu dee saaga soo xoolee comment section yi so da nga dee gis sometimes yow nga pose dara kenn ñëw binda fa saaga borom ñëw attaque la yow sa boppa fekk moom xamul ne ku nekk may naam la dee binda rek waaw suñ gars yi dañ mun naa wax dañ fail to understand foofu noonu tamit tuuti waaye loolu tam mun a ñàkk si media bi waaw loolu tam mënut a ñàkk. lan mooy sa news to président Adama Barrow. Oh, ñaan naa la oh, Adama Barrow na dimbale yuut si rek. waaw dëkk bi moom wax dëgg yàlla dafa métti nag man two months laa fi am waaye man suma bopp xam naa ne dëkk bi dafa métti wax dëgg yàlla dara doxut lépp a seer dunda bi mu ngi métti xam nga salary bi service bi tamit xam nga. wax dëgg yàlla na xool gars yi bu baax a baax waaw service bi gars yi ñu ngi def lu garaaw man ah suma maire bi foo ñi la nekk every day sometimes ay one o'clock laa day génn fii jël town trip pour dem xool suma yaay waaye ma dee fekk ay checkpoint yi se guddi gars ñu ngi liggéey so sometimes gars dañ ma dee xamee sa fiigoo mu ngi nii dañ ma dee wax lu bëri lu gars yi daj xam nga guddi bi duñ dee nelaw te salary bi tamit wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam nañ fii lañ nekka salary bi xam nga na nañ try ñu yokk fa dara rek waaw parce ñoom tam borom famille leen dañ dee jaay seen bakken pour dëkk bi duñ nelaw service bi daal na leen dimbale ak yuut si waaw. la muy waaw man Ibrahima laa tudd Ibrahima Mané. Ibrahima na Ibrahima. Ibrahima. waaw Ibrahima Ibrahima Mané. waaw ma sa Mané. <laughs> tagal ma du ko wax kenn ma sa Mané. waaw ok ok léegi teg naa ko. Hmm. taga ko taga xam nga man maa ne Samba Birane du man ak jàngi leen soo figo yow wax ma Ibrahima Mané non Mané moom ñëpp xam nañ ne Mané Wali Jonkinde ko dee wax waaw Wali Jonkinde Fala <laughs> soo figo man ma foog na nga figo nii nga sama yow nag maa la sut nag yow bàyyi loolu nag ah yow tam yow ma gis ne man njool gay Gambia Talenta ah. ñun ñaar leen Fat Samba ak team bi ah. gaa ñu def lu garaawa ah. man Figo Mané yéen xam ngeen ne ma. gaay ma ne. ngeen follow Talent ak Fat Samba ak team bi man Figo Mané jarul ma wax leen xam ngeen ne dama de seetaan gaay man foofu laa dee jëlee yeneen vidéo so follow leen gaay def lu garaaw. nii ma suma di anti yaama juufa ñoxo baay borom di jaay mees yu rafet yi loo xalaat waaw dégg ngeen anti Yaama Diouf anti yaaw anti mu ne ngeen mu ne Yaama hey su ma njëkkee laa la wax maa ngi dem gars ya ah, yéen next time ah <laughs> ok jàppaleen ko foofu ah ok waay ok Fatou Fatou Sama jërëjëf kontaan naa liggéey bi ñoo ko bokka ah. guy. That Yes, yes, yes. Another semester right in the middle. Push me, push me. And I come in the middle and then I walk on a guy. My whole na dina fi xëc. Na nga def? Mo I speak English. Oh, okay. How are you? Fine and you? And what's your name? Uh, it's uh, Secret. Secret. Yes, my name is Secret. S E C R E T. Exactly. Secret. So you know all the secret in the this, This is a TV. It's a TV. It's Gambian Talents TV, the, one of the biggest oh, online TV. Oh, I don't like I don't like internet uh, TV. You don't like internet. No. TV? But I'm not hiding because I am there in Seattle. That's where my TV is, and everything is there. Everything is fixed. We are visible, and people are seeing us all over. Yes, of course, yes. So, which country are you going? Uh, I'm from uh, France. France. Yes. Are you Gambian? Yes. Oh, but it's like it's been a minute since you left here. Huh? It's been a minute since you left here. Do you visit Gambia? Already? Ah, yes, already yes. Ah. Three times. Three times. Yes. Oh. Kina mom Gambia mbidi nakawaja kaso. Hi. Ah, no no no no. Thank you. Welcome. Ni ay hajan katle. Kaitima. Kaitima. Rusna. Rusna. Rusna. bul rus bul daaw nit dina tudd moo ma jaaxal man dama tiit dama tiit yow naaw yow sa tur nu moo moni comme que kele secret la tudd moom mu tudd moni Semester Avenue kind of tied up honorable You are tied up, you are not tied up. I left Gambia. I went all the way to your village just to interview you before you become honorable. What, what right now? Ah. Um, uh, so you are hiding me. Gambia. Ah, okay. So you xaar mu ne he will be back. If you don't come back ngeen xam Gambia ku fi am rek dafay def nii ahankañ. ñaari fan gisuma la. ah, ah. tukki wa. ah fooy dem. Angleterre. danga dem Angleterre man yeekuma ko. xam nga ñu ne dëkk bi léegi soo wanee ne da tukki garden la sono suma yaay doli anti doli moo fa nekk moo ma yóbbu woon. ah naka naka Angleterre. Angleterre neex na anti doli daf ma toppatoo ba gisuloo fan yii nu ma am. ma ne waxuma su ma bëggee baax rek ah. du baax. waaw bul wax ah. Ah? rek podo o lamin kambia yep ah. ya taculen li so taculen on soko ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw loo sanseeti lo defati te sa bop rek la wut rek sa solo du génna sa personnalité du génna kon nak ken jaarut ci nak ah, lu ki nga nak a ah, moy Yamas Beauty and Beyond Yamas Beauty and Beyond lu reey la umba ñii ñooy jaay meews ñii ñooy jaay beauty supply loo xalaat si yëfi kanam si yëfi rafetal yaram si yëfi taaral jigéen ku sa jigéen mu nice mbete yit ku sa doom mu nice mbete sa yaay mu nice loo xalaat rek kontaanal ki nga xam ne nag ah, kooku noonu mooy Yamas Beauty and Beyond ah, foofu noonu si Atlanta noonu la ko semestre yi di dee ooyee mooy def lu baax a baax di def lu rafet mu am nag beauty fii tamit supply fii si biir Gambia beauty store bu rëy foofu sa type garage US beauty supply eh, sa beauty type garage rek si mall bu mag a mag US beauty and beyond eh, dina la ko wanal su ko defee rek nga am mees bu rafet mees bu nice mees boo xam ne moo lay génnee mun ngeen naa ko nag no, no, si eh, 404 216 5101 404 216 5101 Moi sun number bi fufu nono sa Amerik. So ñu koolee rek nga am ñu ñu jox la mees yu rafet jox la beauty supply yu nice and nice and nice yu unique ba te it ngeen kool ñu fii si Gambia fufu sa mool bi si 766 9247 Moi sun number bi kon nag Yamas Beauty and Beyond ñoo ma ni si suma Semester Avenue képp ko xam ne rek nga buga bugg a suma sanse bugg a suma naay si Yamas Beauty and Beyond One naa la loo sanse rek te defuloo hair quality bu nice rek xamal ne Yamas Beauty and Beyond ñu jox la yu rafet kon nag suma sweetheart Auntie Yama Juuf I love you and I love my hair wala my hair Holland, leen nice Semester Avenue rek lie down with Fatu. kese yaa man góor bi rek laa nopp kan you imagine I love him to the bone noonu la ko si Sudan gars yi di daan ciis loolu leen daan wax I love you to the bone yéen kii suma mbokk la sax in fact njaayeen la nuyu naa la si loolu maa ngi laa fay ko nopp man la kële man yow rek kële sa xaw ma ko man moo ma ci gënal man kële xaw ma ko te bëgguma koo xam sax nu mel ɗum blue white e? yo nabal man kese ɓuri nab ken yo ɗum hamad ken silone magine rek ñakka solo yow it danga contribute sa uh, part si gambia tey su ne gts maa ngi live an askan bi man laa seetaan ku ne ngeen wax gorbunage bi kan ni kon ma romb la ah, yow sama romboon sax feeñu naa la ba pare ma xaamee la xam nga lu ndee wax xaamee loolu laa def kon yow it yaa ngi record ko record loo yaa ngi live ah? Iya, play po layangee record Wa mang la fay bu baax ba, baax fet rafetlu sa liggéey bu baax bi tamit xamal ne rek manit tamit fan la behind the scenes and I really love what you guys do yéen nge am um, some good content apart from that tamit the trainings yi ngeen def tamit for young people Uh, even though we might not have chance to you know interact because of kuneka yang am so different things in hamne yang but we also keep track record nge contribute a lot in the media and uh, I think this a wonderful opportunity tamit pour ma wax la ko ba pare di jaajëfal tamit sa jëkkër bu baax a baax a baax moom suma schoolmate la woon St Augustine's High School waaye nag I wasn't surprised because ñun suñ baaj St Augustine's ñi fa nekk yëpp macha allah kenn kenn kenn loxlewut daal pour pour pour pour pour mu leer rek so everybody is doing some great and amazing things in the country bi ma la gisee tamit yaa ngi si jàpp bu baax a baax a baax and you know trust me uh, li ma ci gën a kontaan loo sax mooy ne jigéen nga. te yaa ngi break barriers understand nga xam nga media field bi dëggal am na jigéen ñi cee yëngu waaye tamit góor yi bari nañ ci waaye su ma la gisee tamit léeg-léeg ci activités yi ak events yi nga xam ne léeg dama ko doy host di ko master of ceremony ak yooyu léeg-léeg ma gis ak sa gaay tamit ñu ngi ñëw am like really I think this is something really great because nu mu bon bon tamit you serving as a role model uh, ci ñi nga xam ne ñu ngi leen seetaan ñu ngi ci kër yi and bi rest assured am na ñoo xam ne tamit ñu ngi toog mel ni yow. Vitamit, they need somebody to at least give them that bit of courage. Broadcasting is all about that. Funga try to look for somebody that can give you some bit of, you know, encouragement. Somebody ko hamne ding ko look up to. You ñep bula la kenn ñun am na ño xamne dañ leen dé sétane. Am na ño xamne nak tamit ñu ñoo support behind the scenes both in the Gambia and abroad ñoo hamne lele suñ jaaree yon gin ñu ne yéen a ngi si yoon waaye tamit suñ demee off track tuti lele leeg gaay delloowaat ñu so keep it up I I I think you guys are really doing excellent yow tamit jàmbaar nga eh, to be honest eh, yaa ngi nekk si marketing you know ñun suñu maas yi xam nañ loolu bu baax a baax eh, sometimes I look at my Facebook and then ma xool ay messages yoo xam ne fekk ñu ngi nekk bébé xam nga rek léegi ñu ngi nekk ay maire ah non bu ma wax maire su ma waxee maire rek keneen bu ko dugg si ron te man du ma ko mayee kenn. di haaju lo aga maire maire moom jël ko tegee ko fële laa ko xam nga man Gambie lima ci di bul déedéet déedéet léegi bëgguma sax ñu waxati boobu parce que dañ ko dibeet su yi ut excuse xam nga xam nga léeg xam nga fi ah. ah. you see very young kids xale hmm. yi ndaw jël seen booba def leen ay pa ay maire yu kenn lan nga man man man man mun naa rek ay <laughs> yow mi ni la boole sa jabar ma ko la si man man duma pa because li dee xew moy dañ la a lo suñ torop dem tok ci boori jumaa ji wala dem taxaw ci boori cooj ki déedéet mm-hmm. I think I think li xew moy dañ dee teel la tek suñ boppa ben place torop and we still have a long you know uh, uh, uh, we have a lot of things to give back to community to give back to society so waruñoo am yena at ñaar rek wala sey rek bugg a dellu wala nekk ci ben ñaari mbir rek ne man bokatuma. time bi nga toog nag na la wóor ne time boobu la la dëkk bi gën a soxla jaayeen bi eh, da nga mun sa boppa soo soo nekkee si stage bi you know all the time ngay MC programmes here and there o ñu gisoon la GRTS ngay waxtaane you know seen programmes and all that you know ak ay sanse xool leen num sanse caméra bu man jëlal ma sanseem xoolal leen ma ko de jëlal lii la ñoo wax xoolal gis ngeen xool leen naka la nice mu ngi nice ba si kaw si suuf yéen lii góor ni la a mel Ah, President Adam Obaron, wants to give one nakala and quality. You hear me? You hear me very well. I'm I'm I'm, I'm speaking the fact that. Ah, xam nga ñun suñu role model si the first thing la ñuy dee jàngal rek the first impression is a lasting impression uh, be natural Come on, I'm not trying to copy anybody outside man in Gambia I have enough role models Euh, benn ki ñoom Lamine Manga ñoom ñooy suma koto yi nga xam ne dañoo toog ci koona bi téye suma noppay def ma naka sudut noonu euh, you know ñooñu moom lu nekk lañ ma def léeg-léeg sax du ma leen ko nuba léeg-léeg ñuy wax ma a wax yoo xam ne bugguma koo nettali fii sax euh, because xam nga nit ki foog nga nangoo doon taalibe soo buggee tarbiyu te du leen ko nuba ma jaala ci ma ci tamit Malick Jones mi nga xam ne mu ngi jos gaañu démba yaakaar naa ne dëj bi démba woon te ñun ñëpp I think ñii ñëpp ay kilifa yoo xam ne leen jaar naa gaay ci place yoo xam ne su ma leen waxoon liñ ma def tey di nga am ñeneen ñoom dañuy tu waaye lu tax mu la ko def xëy kii lum yaakaaroon du dara de man nekk naa ci stage ak Malick Jones mu ma ñu bari xamuñ yéegal nañ ma ay stage yoo xam ne at that time bi maa éeg du suma level one sax waaye li tax ñu ko doon def mooy dañ ma bëggoon a may courage dañ ma bëggoon a may fit ñu ngi ma doon coach waaye tamit dégg naa kàddu yoo xam ne si training bi su ma nekkoon like I'm sorry to use this any other ordinary Gambian ki nga xam ne dafa diis waaye lii du ma ko nangu kii mooy kan kii lu ma jaay nii ni kon fu ma aga nii du ma fa doon aga tey just to be clear pour pour am na ñi nga xam ne sax mun naa leen a wax ne léeg dañ daan toog sax behind the scenes dañoo ñëw ne ma Modou mii lu moo nangu nii kii daf ko uppat nangam sangam Kilum lu mu jaay ni hay kii suma dege wax yoyu behind the scenes sax ma ya because ñun we believe in nit ki so buggee am barke eh, ki lajangal, sila fo nga lim la knowledge bi di transfer ndank ndank ci la mo duggé ba pare you know ratal ci ku nekk different people and that is the time you become very effective Why so dore rek ben ñaar rek wori gay mën nga wax ni man rek nga ni mun nga tew daw si nga gis ci stage wala ñu mic def fi catastrophe ci dëkk bi te mu happen ci media bi I think ñun ñëpp dañ ko gis because lu dee xew mooy du ne ñaar de fekk li xew mooy tarbiyu dafa yaakamte rek ni tew daw bugg def mbiri boppam wala bugg taxaw rek moo nga dee gis yenn façon mbir yoo ci media bi and dama jël opportunity pour wax ko media now should be a bit more professional and careful comme yéen ni ngeen nekkee di def rek rek rek because moom jëkkanam mi found this this this this this Gambia Talents be, uh, kuma ko lanchon tay dina ci mëna wax dara because he he got the mentorship du tay uh, you know depuis time high school he was 100% mentored he was 100% mentored ñun du school assembly lu nekk lañ dan taxaw di wax ñu joggé fofu jaar ci yeneen activities yo xam tay tey suñ di wax nit ñay gis nihiki hi ki mu ngi taxaw si ay jooni nit waaye pour wax leen dëgg man nit ñu sa gisuma leen some of am na ay event yoo xam ne su ma ko hosté ba pare wàcce si ñeneen dañoo ñëw ne man ndax da nga laal si ma ne leen loolu nu mu dee saf because pour man na level bi moo war a use dara ñëw taxaw ci nit how am na gonna do that I have already broken that barrier waaye dañ ma jàngal how to break that dañ ma jàngal tamit kilifa soo taxawee ci kanamam naka ngaa waxe mbooloo mi nga am tamit the type of people you have how do you need to talk to them xam nga uh, sa sa mbooloo bu nekk am na language booy laaka ak gaay waaye kilifa di ñëw toog ngay wax waxi ñaaka teggin ak ñaaka kersa wala nga solo solo ni ñaaka kersa ak ñaaka teggin te most of the programs yi nga xam ne dama ko host alhamdulillah uh, daf dee very important programmes yoo xam ne ay kilifa ñoo fa dee nekk so man tamit suma comportement not only in front of the camera but also off the camera is very important even to a point bo xam suma lifestyle even off the camera and off work where I go people I hang out with where I wine and dine dama ko dee select <laughs> because at the end of the day ma am gatch ëllëg ci bir dara xappoon na ñu ne fuñ ko fekka ñu ne ko ah modu ñu ko fekka fo xam ne yaakaare wuñ ko fofu de xam nga loolu euh su ko ñeenay dina leen di moralize so mota um so ci media bi wala yangsi presentation, ci yang ci presentation bi yang ci camera bi already yangi associate with the brand comme tey yang ngi ne yang Gambian Talents that is a brand that all of you have to protect you know so from mom, yen camera lady see, si ñi nga ci office bi anything loo leen def now dafa reflect the brand of Gambia Talents te su yaaxa Gambia Talents yëpp yaa yaaxa du la yaaxa yow kenn de waaye dafa tilimal Gambia Talents nga xam nga mbir yomba na waaye pour defaraat daf di daf di daf di difficult trop so moo ta ma ne anybody koo xam ne mu ngi ci media bi try nga ut koo xam ne dina la mentor it's very important man besaas yàlla tey euh, duma leen ko numba every now and then maa ngi communicate ak Lamine Manga every now and then euh, maa ngi am ñoo xam ne du ma leen ko nomba even nekkuñ ci réew mi sax léeg-léeg suñ maa seetaan damaa am benn prononciation ba wax ne boo xam ne wax naa ko in English yow soo ma gisee ordinary Gambien dafa ne hey boo yow yaa dégg English fekk def naa blonda because Gambien bi du la dee mën a wax ne lii is wrong somebody from nowhere outside moo maa call ni ma diw ni nga prononcé lii at this time it is wrong don't even try it this is how it is pronounced ba pare du em noonu daf maa ne repeat ko ak ni ma em nii yëpp and I have to say what is correct minima that is what is nga wax ko waaye fekka da nga koo def defin boo xam ne rectification la dama eegaat waxaat the same thing rectify ko because li lay yow mooy once nga ngeen nekk ci media bi na la óor ne forget about Gambia also think ne lii is online or is on TV or whatever content bi is going outside te na la óor ne ñi laa seetaan ñu ngay rate not only Gambia talents but ñu ko use to rate Gambia so man moo tax ma solo fuma dem taxaw nak duma ko de bugg baye gaay de su nekké si salifu jeyte lay dem dina ko jël dugal ko ci washing machine puudar ko gene yi fa nekk yépp passé wat ko suma taxawé ak yow da nga fa ni ki mom Paris la jëlé affaire yi fekk gaay <laughs> salifu jeyte mom ak na tuti rek <laughs> waaye namit solu ci buga sa bopal ci jaamu yalla la boka and there is no secret to getting there on top ci media bi fek nga am personality fek nga am your own trademark bu ko bàyyi téye ci rek bem dëgër whether camera lady nga whether presenter nga whether whoever you are waaye try to be yourself tamit comme man tey euh, mënumaa toog ne dama bëgg a Lamin Manga waaye because Lamin Manga already brandi boppam la waaye Lamin Manga is one of my greatest reference ci ci ci dëkk bi te fu nekk nag la ma jàppale ci lu nekkat lu ma bëgg def ABNC dama ko ñëw ne ah bro koto wala ni nangam sangam te nag dama de nangu tamit lim ma wax because nit ku nekk tam foog nga am xam ne sa la feeñ naa fu Lamine feeñ muy télé taxaw naa ko stage fu président ak président taxaw ma def ko Lamine lim def def naa ko ci dëkk bi soo fogee ne aaga nga level am rek da ngaa nax sa bopp because na la óor ne ba tey am na yi nga xam ne mu ngi ko denc ci ron waxandeem bi joxangut la ko te soo gisee moo wax am na opportunities yoo bare ñun ñoo mo moo ñu ko jox balaa tey ay at ci gannaaw ñun duñ daan xalaat eeg stage jàkkaarloog président wala jàkkaarloog buur wala jàkkaarloog ay kilifa loolu soo ñu mën nañu daw ba base pour noobu la waaye léegi dafa mel ni jël ndox rek nan du du dee nekk because lan ñu ngi am the right mentorship from the right people and and and man lu lay la encourage ñi ngi nekk ci media bi yëpp tamit lastly li ma bëggoon uh, wax tamit probably that will be your last question Gambia ñu jëma try pour respect media bi a little bit uh, ñu jox media bi tamit sen gëda tuti. it is it is very important jarut ngay dem fu sori sa jarut duga plane demal across Sénégal fii how media personnels are really treated ci boppam and baax na trop tamit ñuy gëstu media bi bu baax a baax especially from the general population bu baax tamit ñu xam ne media uh, asset la boo xam ne soo ko ñàkkee ci sa dëkk dafa mel ni yoo in a blackout understand nga imaginal those days yi nga xam ne amuñ télé amuñ whatever whatever to have one simple information daf laa jaral travel from one place to another and it takes you days waaye léegi just steal some mobile but i am na ñoo xam ne dañoo sega seen mobile suba ba ngoon and Gambian Talents is one of the most you know sources yi Hamne, a lot of Gambians look at it but because information is land power so ñi nekk behind the scenes tamit comme moom li moo def nii ak yéen li ngeen a def nii empower you know Uh, uh, uh leen bunta yi you know foo leen dem tamit ñu treat leen comme VVIP tamit léeg-léeg tamit poos yi tamit mu fees tuuti ah am na ci solo waaye nag I think uh, I have exhausted everything mënu maa wax yëpp naa foog naa nag laal naa tuuti waaw. Uh, tey suma xol bi dafa fees honestly speaking gis nga li may wax all the time dama koy wax always uh, ku fi foog ne yaa ngi si wallahi azim ega buloo fen and every day is a learning moment for all of us ñun ñëpp muy paa bi muy maire bi su ma déggee mu waa um, alaaji Lamin Manga du ma ko fàtte parce que tey faatu di first uh, television bu mu uh, radio show bu mu host di Beyond the Line si Lamin Manga leen ko host di jaajëfal suma yaay jooju di Aisha Davis an director of information services mooy suma yaay man moo yar moo ma la loo xalaat si media ba tey faatu war a eega fu moo eega waaye yow it koo xam ne la ñu nit dañ la di xool all the time te gis nga vidéo bi moo tax ma bàyyi la rek nga wax parce que fu nga waxee ku la fa stop rek yaaxal lu bari euh, li nga wax dafa am maanaa xale yi yéen a ngi dégg everyday ma wax wax bu nekk nga ne Fatou bari wax Fatou lii faatu lele dégg ngeen ni mu ko waxee nii la jàng du wees everyday is a learning moment for you macha allah njaayeen bi tàggal ma sa njaayeen li ma leen bëgg a yokkal rek mooy Eh, xam nga xaalis dafa important trop waaye soo doonee taalibe fàtte ngum ko ci gannaaw gis nga bi ma doon éeg tuuti àgganguñ sax laay mën a wax waaye bi ma doon éeg it was really difficult eh, su ma leen waxee suma salary fii yéen ñu bari di ngeen reetaan because kenn ci yéen du ko nangoo nangu jamono bi waaye ñun dañ daan host programmes free of charge xam ngeen lu tax ñu ko daan def passion bi xam nga man tey pour ma éeg stage rek hi loolu loolu beneen mbir la ci man ba pare tànn ci nit ñi nekk ci biir media bi yëpp nga jël ne ma hostal ma suma event hostal ma suma programme loolu lu rëy la ci man defoon naa ko ba benn bés programme bu important ndeke man bojatuñ ma sax fàtte nañ ma ci event bi. e ho amee yëpp si mu ñëw hoos li moo hoos yëpp wàcca wallahi programme bi jeex tak may ut benn ñaar ñett gisuma kenn ndeke moto bi ma ñëwee essence bi jeex na tak ma drive jógee ko Banjul ñëw ba Jimpex maa ngi dëkk Kanifing ñëw ba Jimpex koof rek moto bi di dóorante man burum baram aw ma pour essence gisuma essence bu tijjee ko this is 3 4 am in the morning Lima def gis ngeen suma necktie bi bobu la simi takako code bi ma jël nako sanin dama pousse moto bi jimpex be gis ngeen estate Kanifing estate soy duga fofu la moto bi mujjé fay suma katan jeex tak tak tak tak tak tak tak ma bay ko fa ci kër gi bu di konkon this was 3 4 am in the morning ma ngi ñaxatooy hep hep hep hep sani moto bi ci biti waaye loolu tey dama de kontaan pour nettali stories yooyu because li xew mooy euh, jaar-jaar yooyu euh, li tax maa ko doon def rek mooy I wanted to master the art understand nga man faalew ma ma dem programme nga fay ma ñaakaloo ma fay bo dama bëggoon a prove something I had something to prove on stage and pour waxal la time boobu la nit ñi door di identify a lot of them were like kii kan la booy bu tey eh, maa ngi noonu la làppa nag ñu la ki voice am busew bi kii kal dama voice am di so some of them okay Leleng nga am feedback from some of them Lelich leeg ci events yooyu nga jànge ba tey Alhamdulillah. alhamdulilah even. su maa def event foog ñu toog nag ñu négocier time la jamono dama ko daan def because of passion duma ci daan laajte xaalis dama ci daan am situation boo xam ne sama néja ko ko soxla oo leen ma kolen ma you know what I'm saying koo ma ma jaaralal leen waaw ku ma soxla fu ne nii foog ñu toog waxtaan sa number uh, bii man maa la ko jox marketing department bayo and guys understand uh, Gambia dañ nit ko uh, promote suñ talent si you know sometimes daan MC programme tamit gis ñu mel ni ñoom naka naka tata dinding ñoom Jaliba ñom musa Ngom program sen programme daf de neex ah, way nissan ngay def sax ñi di la ré ñi di fa ne lo ko sun danan yaangi ni so len amé any English programme president Adama baro maa la ko wax danan baangi ni nak le nak mom moom jàkkaarloo leen ak moom oo ko mu defal len very good program programs yo xamne sa dignitaire ci sa dañu xamne sa amna bul ini ko xamne day sox de Well, Lulu, let me ci gën a yokk mooy euh, da nga it's a firm supporter of talent si xale euh, His Excellency President Barrow I think euh, this is not the first time I have hosted alhamdulilah su ma ko doonee tamit war naa cee sant yàlla waaye pour wan la he is somebody I really respect and I have high regards for host naa even event du before Barrow ak during Barrow Why, I can honestly tell you President Barrow eventam Eh, dama ci desante yalla bu baax because li xew moy even some duy tens xam nga nak ngor ngor mom even some daf dan tens <laughs> moy boy, boy hey his excellency ngor ngor mom even some daf dan tens because mom mom ken xamut lu aglumbang, ak lu mu bañ ah. mun nga ne ma ngi tudda sax mu ñone la kula wax nga tudda so mom do dan xam lumbuga lu mu do lumbang. xam paate lu bañ pare daf dan to be honest with you daf dan dem be di interfere yosa sa own so ñu bari dañ foog ne xos even dafa neex it's it's one of the most toughest thing oh. because uh, am na yoo xam ne daf day happen behind the scenes mm. te ba ilaa yomi du ma ko nettali. ma bëgg a wax ne Yaya Jammeh moo uh, Adama Barrow moo gën Yaya a du bee nag gis nga event am dama ne ndax moo ko gën na génn ko Yaya Jammeh ak Adama Barrow ko génn. xam ah. bari anam. ok léegi léegi baa ma fré déedéet déedéet fii moom du ma nangu Yaya Jammeh ak kan ngay liggéeyal te doo fiti fiti jil dafa mel ni yow yaa ngi compare guddi ak bëccëg baro programme alhamdulillah everything is by the programme there is no interference ci sa programme there is no interference maximum ba pare yow ki ko host uh, you at ease ba pare respect na event ba pare respect na time tamit pour waxal la loolu rek uh, respect na time moom ci boppam event su jotee moom dafa ñëw on time waaye nag xam nga ngóor ha nguur moom bosam moom da nga nopi tek rek setan affaire bi num fa tajo rek nel um rek <laughs> am ko boobu mom do complain because so kom ya fi ya ya, ya, ya no baro mom machallah xam nga Gambia ah, ne jekkalil ngor ngor xam nga Gambia ah. eh, man lima de I'm not a politician as such but I just like rating fairly uh, especially when it comes to media mii de bi ci boppam dañu war a sant yàlla sant baro a lot ñun there are a stories yoo xam ne duñ ko nettali tey because man news dama daan président man event dama daan host at the highest level so man xam naa tension bu baax ñu bari tey dañoo jóg nii ni eh bul def ne waaye ñu bari xamuñ tension billahi bes bu ñu xamee tension mii de bi dañoo daw ñun toog nañ ba toog ci last day si whatever nguur war a dem mu siisu rek li xew behind the scenes si studio duñ ko mos a xam nga yow xam nga yow masal ñu masal xam nga yéen yéen a ngay wax affaire baa ngi neex ambiance baa ngi cool fii du dégg waaye nag am na yéen yoo xam ne ah bu leen ko mos di xam moo tax <laughs> Adama Barrow sant leen ko bu baax pour pour wala dégg rek event am euh, is one of the most peaceful events event am bu ma nekk suma xel daf dee dal waaye pour waxal la dégg rek rek rek rek du mos a intervene ci anything that you doing ba pare programme sami protocol wise security wise, event management and coordination wise, from the hosting of the event, everything goes according to plan. To be honest, that is that is that is a game changer in events. Chibo Palm League. There's always a league, more events people are organizing more, people are doing more. I mean, man, I'm just one out of hundred stars who are doing events and who are doing also master of ceremonies. Why not? I have to thank him because to be honest, even some burying hamne then could host with some other people. Uh, Santa Yala Reklenchide Am and he's a very jovial, very peaceful person, and we all pray that. I mean, nafi ya karakter wer tamit yudega. Man wa humane baro ah president bero yule jama semesta avenue. Bi Gambia kuko ko am lo di bi Gambia saay ka kira dafa liggéeyal Gambia fok nyu amko one minute rek naka nga def. ok maa ngi yala. sant yàlla. loo ne. waaw ah, maa ngi rek. man Mahmud Mahmud Lamin Diaw eh, Mahmud fojo foo maa ngi jógee Ghana. Well. No demal. dama demoon fooy liggéey sorry. ok maa ngi National Sports Council. Yeah, i am the deputy director of maa ngi dem uh, chef de mission meeting for the African Games. Wow, lolo mayo Ghana. naka la fa taaj. waaw um, dañ demoon pour seti facilities yi sports facilities in Ghana yi nga xam ne foofu African Games yi di amee moom lañ demoon seti gis nañ. Uh, stadiums yi guys yi nekk di liggéey fu mu nekk sax almost pare nañ 98 percent am by balaa end of February dinañ pare si yëpp am na yenn stadiums yi nga xam ne boo facilities yi nga xam ne pare nañ so very few rek boo des waaw biñ jógee si loolu di first day mooy on Monday on Tuesday we had a meeting pour jéem a xool you know lan ak lan ak lan moo manqué xam nga rek jéem a criticize you know xam nga constructively si liggéey bu gaa yi nekk di def. Mhm. man yéen tam gars yi su ñëwoon Gambia ñu criticize leen di ngeen nangu. <laughs> boobu dinañ ko nangu in fact loolu ñaan bu baax la because am um, su loolu waree xew Gambia it means Gambia will host the African Games mu fekk you am nañ stadiums yu you know yoo xam ne mun nañoo host games yooyu xam nga rek ak other facilities yi nga xam nañ leen loolu su amee moom dina baax trop. Gambia will be very happy to host it because dafa boost economy bi ba pare am nga boost di morals so suñu athletes yi nga xam ne ñooñu lañ am yeah kon nag uh, dinañ rek yow it uh, nga dem am ne ne yaa ngi soona waaye noo gisee Gambian Talents very very good in fact am um, dam ko dee seetaan all the time on my Facebook kii waaw waaw dam ko dee seetaan ba pare even bi biñ doon dem the last time ba plane bi you know am that little key problem ga yi interview woon nañ ma sax yep yep jërëjëf thank you so much Fatou high five jërëjëf appreciate nañ ko Dakar de eh, ah, ok thank you nekk mënuma daw de <laughs> no I di nga daw de jërëjëf ay as intalent dafa yaaxu airport the light is gone it's Banjul International Airport hi hi hi hi can you talk to me ndeysaan jànga nag yow nag man dama am jëkkër bu daaxa sa bos nga xëccal ma ko bitax doo xëcca góor góor danga ko ko bébé don interview kaam baabu kaama def ko si yow baabu airport laay dafa demoon off <laughs> dëkk bi gis nga laay bu fu air fu demee off kon beneen kon su affaire buy meer eh, naka la kele tudd kii num tudd naka Fatou Fatou Diouf kaay baabu xam nga lu mu wax fu air bi demee off la wax Wow, daal di ma russoliidu air bu demee off air air. Air, ab ngelaw waaw ngelaw naka la ko waxee so airport <laughs> yaa ma gën a ruslo from where the light went off off mom, off la off la ah, so that air bi moo dem waaw more, moo dem light with air bi moo dem can you guys comment comment and tell us waaw na gaay comment lumawa, ma how aywa ana English ci cay Yundum daily light white earth at Yundum International Airport waaw Yundum la mhm. because léegi laal ko si li naka la si anglais ku wale ne light dafa dem off si Banjul International Airport kii laal ko si soose eh? man ma laal ko si olof mhm. man dama koy laal ko si kaay kon yow da nga tapet man ne da nga tapet di wane light ba dem off si airport bi airport bi boy ma xool bi moo ma xool ba je si light bu dem si airport bi boy dafa demoo lay ah xanaa gisuloo loolu light bi dafa dem suñu xol yaa jee man suma xol bi dafa jee si light bu dem lan nga foog moo tax light war a dem xamuloo loolu noonu cegal rek Gambia Matitita light went off at the Banjul International Airport benn góor a ko wax hey hey bro bro ñun every time ñu ngi ñëw si airport bi to be honest so anything saboté at airport waxuma ko de ku next week ma mën ñew babu babu no no bro bul wori de nga balal ñu baalal ñu babu bay ko xam sama sa suñu su dañu bëgg a wane ne semaine waaw dëgg gaa dañu xajaan fekkee ñu ñëw ndaa xajaan non semaine sax la kay kay mo bay ko bay ko ñu nekk fi Gambia man maa si Fatou Diouf di len interview fekk maa ne abal yére wa ci nga te mom boobu la si abal la nekk hmm? abal rek ah Banjul Yes, yes. Who is the semester? Come, is the light that tegu in my boot. I'm not seeing. In my boot. Ali de kala. Babu. In my boot. Babu, lan Wow, you're loud and hard. Kai, kai, kai, kai. I always see you. Mun ma ruslo kai. Ndanan bagili. Okay. Bala matu. Wow. Um, okay. Anyway, I'm greeting to everybody in the Gambia. And what's your beautiful name? My, my name is Lamin Kanyi. Lamin Kanyi. Yeah. I mean, you look so, so, so sunset. I'm just a little bit, you know, because I'm just in a little bit worried. I just want to pick my wife. You know, I think you know she's already waiting for me. yeah, it's a it's a German. It's a German. Yeah. Why do you leave the Gambian and you go and marry German? No, um, I live in in Germany for three decades now. Ah, okay, so that's why. That is my home. That's your home. Yeah, so I love her. Or she love. You? I, we love one another. Huh. We've been married for 22 years. Wow, yes. Beautiful. Yes. Yeah. Then today I give you kudos. Thank you so much. And happy to everybody, yeah? All right. And thanks to everybody in the gallery. All right. All right, all right. Hello. Hi, hi. How are you, Minister Guy? Nathan Babu. Links man use the airport. Magis ko sol should almost all long sleeve, right? Def nectar. Dama de wanes ministry. So ne ministry, right? Guy uyu. No, bro, ninga ko chape ma chapa ko. No, bye ko, bye ko. Oh, oh, bro, oh. nakam. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ko watana yo. No, sorry, sorry, sorry. Mara the next. Next time. Next time. Dama bëgg Next time. Before you chapa somebody, you ask. Ababu? Hmm. Wow, next time. Next time, this one they don't chapa. Wow. Wow. lu lu la wax la. Laaka sa angal ñu nga laaka. Baba dama la bëggoon neexalal bi. No ma may laaka os moom mu laaka Um, xam nga man suma angale bi setut waaye xaar ma rafetal ko rek. Okay, right now. we on Banjul International Airport and we just been interviewing somebody else and the light just go off and that surprise comfort, comfort, comfort. We don't understand because people are complaining, saying that like the light go off in the airport, and it's so confusing right now. So that is the reason why everybody is confusing, and the other boys are just complaining. Government talent dégg nga Babu paa bi xam nañu laakal ak moom man dénk si kafe waxtaanal ak moom tuuti rek. paa bi ngeen ha ah, ko tanande. jigéen laa ni jikin ne. jigéen laa ni ibata jiginde ibota banku jara sudu jara sudu ko yala sutu ko ah. ba yala jala mo pula bije ah. ibota jara da bang fo bota ko ngalaya kanto nyomi kon tele ma fama ani ne wara jara le ne wara jara sudu ko ko ya. ani ko ya yata jetu ko hare wadi le aba jetu ko ibota banku juma juma ko ngam nam fengela paris en france ha ah, kami mundu ba fama ta bangku? ñina ñina fam bodo eh ñi santa bilani euh july july july le ja. hmm ko de ke mo ko ma jam bakke ko so ñinang a ah, domo jumale me bi nga jur jalan ko domo ro kay fodo ndada kolo kolo la ah, wallahi domo ro kute domo ro kute domo ro kute akata dido a ah, ko ke gamen talent jibe nka jibe la wutumo baake katte fay wato nka jibe la baake de wal sa yim famata jibe la maka ta baake antan ner ko yalan katte fay wato wutumo kul kasiya nka alla bo su jibe baake ko na ba ka ko be ko ma kadiya suru akko do ron ne do manja ba moy woto ko yo kamala bi do yatna najiwe ya, buka fenke baba ka ko parce que man sura ka man sura ka dal ko dorna na Allah bo Allah bo su le daga djouf pa Ousmane pa Ousmane Diouf quoi wala nga jibe ba ka bitun dal ko me wala fa ko pa Ousmane ka akan man ko fa pa Ousmane fa fa man ka program France man je na o sama a jibe la be si quoi ah ok wada man ka kan ko sa la ko de ah na le sama ba lal de ngadu jara sotu ko ndel bi jere jangol la mun del to quoi hmm. bar nga jibe le de 80 wato yo ba yalla ndel hamba bi je mam sura ka moy nga bana ka kala fogo ani nja hanga kan yo dum ka faje yo la banna ah, mm, ah. ya mana ka kan sama nanje amma jibe ba baka amma ngala na ko di Allah baraka baraka baka ah, a baraka bay komi aya funya sa watu wati man ka ko binale jama sama mai ak sa kanam holen ki def mane ya setan always and uh, it's always beautiful uh, diko gis ko for the first time nga def my fine no dura ba jalo ba jalo Jalo. Jalo Jerry, Jalo Ban. <laughs> jalo Jerry. Matagal masa Jalo. <laughs> so wama wama matagal masa Jalo. no. nga ñeneen ni wa Jalo Jerry, haw ma naka naka. Am nga man suma jabar mu ngi ba. Wa legi ci Jalo. Ci Jalo. Wow. Legi bala. Legi Jalo. Non non mo Ah bala. Diallo la waaw. ma nuyu ko ñu ngi ko nuyu. na so wax ma eh, ban dëkk nga jógee ne. Helsinki waaw. bi mooy sa first time nga ñëw o. man kay du ma fi dee jógee <laughs> du ma fi dee jógee all the time. waaw dama ko dee na ah, bari waaw non bari loo affaire ku baax nga ku baax nga. jërëjëf jërëjëf macha allah macha a emotional, very emotional. Huh? Eh? Alright, off the camera. Then give me my hand is very yep me because of my day set time. What did you? Don't cry, don't cry. Miguel is for Miguel. Miguel is for <laughs> Miguel. auntie Aisha Davis. jàngal bi nga jàngal sa doom bi baax na. waaw waaw anti Aïssa Davis sunu yaay. non non non <laughs> ah yaay a koy sa xëccoo. ma ne ko nunu mu day ma suñu yaay ku am yaay bi yaay eh ku am yaay bi ne eh yaay na saay. saay saay anti Aïssa madam. ah yéen a soo amee wax bi neex danga koy neexal da nga nañ ko ma dem bi yaay ku ko am loo di wax bi yaay saay bi yaay di wax bi saay bi ku ko am loo di wax bi saay li yëpp sa yaay ko waral wala a nga moom mun sëcc toog la mun waaw noonu loolu moo xamul nga ata moom xamul fecc bi xamul ko na xam nga soo ay fecc jaru ko am sa mees bu baax rek dara man ta ma laal wallaay ndeysaan moom ba sama ma brown na xama orange garaawut garaawut eh eh hello ah sama sa how are you waaw yow ya dang ma ne sa sa jabar a xamul loolu mu ngi na nama demal rek demal jabari Gambia yii Bulan leen jabari Gambia takka jabar fufu sa diaspora ba sa Europe ba maa si Fatou Diouf soo soo sa jëkkër dina di seetaan Fatou every time sa jëkkër bëgg a wax Fatou ne ko ñëpp puus nga taa mel ne yow yaa fi mujjee am jëkkër lan la. Ah, du ma ko nangu sax suma jëkkër suma jëkkër la du ma nangu benn xaaral wax bi laay bañ. waaye interview tam. ah interview mun naa ko interview kenn gis ko fii di leen lijjanti noo ma ne ko si coppet. Hey eh, bro, what's up? You know what I'm saying? You always watch me and I watch you. Xanaa doo ma dee seetaan bro. Dama la something samba. torop itu dah? noo oh, tudda maa awal. tudda Amadou Diop Mana dëkk nga jóge ah Holland Holland Iya. naka waa Holland Ini ngi Mana na jawab? Semua am jabar nih. doom yaa nekk nii Semua Allah mangkok apa maa ngi semua fa bàyyi ba suma doom a Ade Ade Diop nga nuyul ñu sa jabar wax ko ñu Harus semua dom. pour YouTube mu nekk remember kii Ade ma ini indi ko indi ko baby, baby, baby. Wow. The aku Akpapa. Wow, you're beautiful. How are you? I'm good. I know you're tired, right? So welcome to Gambia, all right? Thank you very much. And enjoy yourself. Thank and you. always come, okay? There's no place like home. Tell him thank you. Leka nga ganana naman. Man, benakin na. Benakin na yapa. <laughs> Jerejef, okay? All right. It's beautiful. I was waiting for you. dama laa tempa rek tempa rek gëmal tempa rek yow mu ngi ñëw mm-hmm. nekk koo xam ne mu ngi dem ku ñëw lu moo yàkkamti moo ma jaaxal soo demee ba foofu nekk mënta boo amee feeraay la rek ay taal bukur bukur mu bañ mm. ne ko buruj xanaa dama semestre la fekk mm. sa moto bi sa baaxut métti mm. na ah yes uncle I was waiting for you how are you fine fine and oh Sidi Yes. Stand one minute? From which country? From Germany, no. Germany. Yeah. And I hope you watch Semester Avenue. Uh, no, no, no. I'm, no. I'm a normal. I'm, right. I'm, so when it comes to food, what food do you miss? Oh, <laughs> I don't know. Uh, maybe domoda or uh, super kanja is okay. Oh, yeah. Right. Thank you. Semester Avenue. I'm good, and you? Yeah, and come closer to me. Anyway, I'm just tired. Thank you. I'm doing tired. Thank you. Semester Avenue. Next week you will not see me. <laughs> Hey, Babu, this is mine. Wow, wow. Muna. Chill. I'm doing tired. Muna, I'm just tired. Hagen yo mom. Semester Avenue. Hagen guy mom dem bode hajan. Ah, guy dem bode hajan. Kai, kai, No, no, no, no, no. Okay, Gambia. no xam nga no xam moom moom bosam baax na sax waaw moom sax waaw am na ñeneen dañuy xajaan hmm? Wow, so léegi mm-hmm. maa ngee ñibbi suma kër gis ngeen ma man mi dama am kër suma yaay mu ngi fa suma papa mu ngi fa suma bàjjen mu ngi fa suma goro mu ngi fa suma nijaay mu ngi fa suma bàjjen waaw wax ko mu ñewé ni kay ni la wara mel dama bëggoon a dama mer semestre bo fi laal mu la jaay xajaan nan la na nga def ma fi day xam la sant yàlla waaw waaw fatih ndika nga jaamal laa jógee nii waaw xam ah ñu bëri alhamdulilah sant yàlla waaw waaw kañ nga gëj Gambia yaagun mm, doon ay course 2012 2002 2000 yeah in corona time maa ngi woon fii it's ah, beautiful so kan nga gën a nama in Gambia lu ma fi gën a nama mooy nit ñi ñi ñu baax yi waxuma si outside bi si kër bi laa wax si kër bi si naka dara ah, dama ko wax kër wax ma rek <laughs> dara naa nama ah. Nama ah. modara, nama modara. Dili dili. So when it comes to food, man food nga ginanama? kanya. Supa kanya. Tentul wow. Wow. Supa kanya lang. Supa kanya ak tentul. Ak tentul. Tentul. Tentul. Bo man toga la. Mana bay ma bay la. Mo man toga la yay jabati. Wala jabati. Aki, mau ta mungi dangal. Nadang, nadang, nadang, nadang, nadang. Ah, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang, nadang. <laughs> na biasona ne dañ leen nangoo ñëw dañ leen nangoo ñëw ngeen tër Bright Star su toogee ba am lum am be ñi ci xam ko ba ministre Bakary Badji di leen yóbbu fu ne ngeen a fuuy ngeen xam ne ñun ñii ñoo tax ñu ne Bright Star waaye waxuñ dara di ñun waxu leen dara waaye doo leen am programme waaye uyuma do am programme benn Gambian talent skyline. waa loolu dëgg la. lu ñaaw la programme nag koo fa ooyee du ko xam. xanaa ku wax na ñu ngi jégalu léegi wax bi jé. ma la soo buggee ma jégal la. waaw jox ma two um, xam nga ATM laa dee doxee. because xam nga ga Gambia óorut. so xam nga ATM card bi leen dee doxee waaw. non non bu ma bu bi. waaw waaw waaw. waaw waaw correct. nga xam ne du ñooy maye ni bon yéen banque doo leen toog ba support media outlet maa banque ak soxor leen wax nga dëgg ah, xoolal léegi sa banque euh, naka la ATM card bi du ma ko ko jox tey su ma joxutee 5000 maa bañ maa falañ arama kool banque mu ñu block ATM bi kon su la neexee ne ko gaay waaye nga no waaye yéen balaluma la nama nañ la de ah, ana ana yow ba léegi takkuloo jabar la léegi tey yangi anda ay ñir xana kila moy sa jangabi ko anda no suma anti la sa anti wa suma ni am anti ko kan sa anti xana jeek la suma yimpañ la la la anda ma nekk loy anti suma ATM mi ma dem ma ne ma nekk lo anti ka anti suma suma yimpañ hmm. suma suma jabar onko suma onko len joge bunge legi legi ra so bugo won onko lal mu dikon nga gis mu jiinu bay bay bay wala ko mu jom ah, suma alen ca semester avenue we wala yeah ñu semester yi wàcce waaye yow lu lu ma jeexal Bakary Badji yéen ni ngeen di ànd ak moom fu Bakary dem yóbbu leen hmm. ban sëriñ ngeen yóbbu Bakary wax ma dama ko bëgg a non lii tombé la rek. waaw tombé la waaw tombé la te soo gisee moom mooy suñu tamit understand nga. ah ñu nekkul suñu ministre. waaw mooy suñu ministre moo tax ma. léegi waaw léegi uyu ma. xam nga suñu affaire la ñoo wax. suñu affaire la ñoo wax dafa nekk nit koo xam ne lépp li nga xam ne ndaw mu ngi ci biiram moom dafa ñëw mu teg si loxo. waaw léegi dama bëgg a Assane yow da nga nekk youth boo ne man Fatou Samba gannaari kenn nenuma da nga liggéeyal Gambia ku la bëgg a ku la bëggut ku am nga yalla may na la ñam nga am ñam nga am kudo, macha allah am nga fayda wa aja am nga fula am nga gannaaw <laughs> yéen wax asan Assane lu dafa di ki mo wa asan asan kay dama am luma ma bëgg a wax kay one minute one one minute gis ngeen asan na ma may soo paree da ngeen ko wuyal ko mu joxe halis asan <laughs> yo bàyyi mu koolaat la Assane dama bëgg nga waxal ma honorable minister ku baax la nag man du may euh, jay kenn ñëw na ba si suma office fi ma nekkoon sa Red Cross mhm. ñëw xool suñu place support ñu mhm. waaye maa ngi oo honorable minister di honorable Bakary Badji mhm. di ko wax ne ne mu ñëw jàpp si suñu combat Pa Ousmane Diouf moo nekk the only individual boo xam ne moo ubbi full media house di support more than 500 young people di leen jàngal free of charge tey gars yi am na ñoo xam ne tey Adam Cissé ngi QTV nga am ay Aïssatou Touré mu ngi GRTS nga am Mohamed Garmi mu ngi Eye Africa different 360 plus ñoom ñëpp soo gisee ñu téye mic Yala Gambian Talents kon Pa Ousman Gambians ñëpp ko war a jàppale rawatina nag ministre ministry of um, um, youth and sport parce que tey ndaw yi ñu bari ñu ngi idol guddi bi ñiti di toog ay xale yu jigéen di téye ay cigarette nga ne xale bi baaxut fekk baax na waaye dafa amul lum jàppa Pa Ousmane mu ngi créé loolu di only media house boo xam ne mu ngi liggéey 24 hours ñu ngi liggéey 24 hours soo demee Gambien ta every day ñu ngi liggéey waxal ma honorable mu jàppa si ñun. waaw ah, pour leeral la dara rek. Bakary si kum agsi wul rek nga muñal ko parce que xam naa ne euh, loolu mu ci xolam ah ñun ñun ñun mii sax euh, li nga xam ne pour dem international nekkoon na suñu bébét nekon na li nga xam ne discours discours ne ko ak moom like three years ago understand nga mën ñu ne liggéey leen rek yàlla baax na te you know bu moo door tam alhamdulilah ñu dem euh, fii fi nga xam ne mooy Kenya yàlla ñëw defaat ñu am opportunité pour dem Ivory Coast waaye su loolu yëpp soo gisee da gis ne liggéey la te euh, ñu ngi ko ñaanal nag euh, place bu mu nekk yal na ko yàlla euh, defalal jaama moom it soo toogee di waxtaan ak moom soo soo ko seet si office am he has a lot for the young people of this country uh, ba pare it uh, soo demee discuss ak moom wala soo demee xool seen policies da ngaa gis ne nekk na li nga xam ne ñu ngi try pour consider uh, young people yi a lot and especially 2024 bi 2025 he has a lot in store li ne man jotoon discussion ak moom to be honest te wax na lii nekkul li nga xam ne mooy. yaa ngi ko promoter léegi ba dama waxal Bakary ne honorable ne Gambian talent ñu ne dañ bëgg nga ko seen combat ak suñ graduation comme ni ngeen fa ñëwé woon this time mom leen bëgg a gis. honorable ah, Gambian Talents ñu ñëw pour ñëw jàpp seen combat parce que xam naa ne di nga ko def parce que muñ sa plan yi already sax so léegi gën ko fast track rek waaw gën ko fast track non suma way la waaw téléel ni dama ko wëyal ba yow kay sa baat bu nekk kii laa bëgg non ko ministre la Honorable Minister Bakari Baji, Japasisma Kombaso, Japan, the You know what I'm saying? Ganadi Kenna, Nanuma. Ayo. Welcome. Bakari Lanyuo. wo ngeen gor wo jambar wo bete bete e eh, wo kundayam geureum gërëm ah, a ana bakari eh, mu ngi noonu ana bakari borom ministre ana bakari e eh, bu la Gambien te leen jërale meñu milio e <laughs> bakari honorable Bakary mul bakari baaji ministre Gambia jërale rek meñu ay million So ko mayee rek ñu invest ko si Gambia Pa Ousmane a ngi Amérique am compagnie am di def ba dara dalalu ko waaw Fatou Samba ngi nii kaay suma mag a ngi nii ay la ay la la suma mag la ah dama suwoon na billahi ya Fatou binta maana jooba ya binti ya binti binti ya Fatou no def maa ngi yaa ngi ok du xool la jël Adam moo ma jël si. Mm-hmm. it's beautiful. it's been a minute. dinaa ñëw si kër bi. man la yaa Binta. dama soona si Uba Jali. Uba Jali. yaa ngi koy toppatoo naan koy toppatoo. di ko jox yu baax. yëpp. Mm-hmm. waaye ko Black Beauty ever since. so lan nga a nama si. Oh, fii daal. karena restoran, hmm da nga nar dem restaurant lek, dem toog lekk suñ oh, mhm. paree ñu ebee <laughs> yéen kii moom yar suma mag la mom ak suma mag ami samba lu ndaw ndaw suma raka ñi ñoy suma raka yi e. nabiya nabiya kay <laughs> fi nabiya xanaa amul ya, ya binda yaa binda ay yow yaa binda dafa rafet dafa nice né ne né ne masa suma tuké won rafet ah kon nga ñaaw namanya Mande mangi figa biya mangi mel numa wara mel holos ma black holos sama kanam man holos kanam ma am ko ahabam lo namat si dara ah dia jarut mu leer kana biya ñu ne wax bu ega dafa ko moom loolu laa gis wax bu dafa ko moom kon jaratut waaye waxal rek nga ne kanam nga am ko ak la laat ak kawar bu rafet ak las ak roba bi tànka yi nag soo leen ko gisee ñu si taami yo karab ay bëri paax mus di ngeew ngeew <laughs> ku dee wax loolu non boobu boobu ñu boo dafa expire naka lañ ko demee man mënu ma ko sax yo doo ko mun moom la moo ko mun waaw jënax lan jënax dee bëri paax mus de mun na wax ngeew ah <laughs> jeunesse day bëri paax mus day mën a wax ñeew <laughs> bu leen ko bleen it's Semester Avenue te lii la leen amal si Yundum International Airport waaw te lii la leen amal Yundum International comme like suñ mbokku gaay ñu ne duñuy laaga sooda comme di la wax ne ay ba Semester Avenue jibe jibe kan baabu doo dee wax kii nu mu ko wane janax day bëri paax gis nga jigéen sooy wax ñiti dañoo naama li nga xam ne mooy jigéen loolu la ñoo wax jigéen dafa am ñemel an dafa am Toulouse dafa am Talas dafa am Tirigirwut am Gilix mhm. dere feem doo ko wax si media feem mhm. si yeneen boor la yow rusloo nga ma jëf dun koy wax da ngay jëf rek baax yow waxu waxuloo fi dara nga ne jëf duñ ko wax da nga jëf baax yow waxuloo fi dara babu babu wala si ki man ne kay amma <laughs> ah, ko mi nga kondom baake ke ato data mi ke semester abini jibi kafa araba araba da fo moko ma gamen tara mbe kanwa bele jang ga ko mo tan nan tondi momo nata rek niyeta nka ko fo dan dula nka fo ajana kono woronte fengel anti ken nka ko lay may la kilim ba kilung ala ajana muso nga ko no wat wat nit ñi ñata rek gamete mo ñi ñata rek anti ken ate bulo ba kono lay may la woto ka kontong ad momo be banko kan fo bantara banko kan gamet ton ko nano nka dunya ton ko nano nga be kontong ka fare aliabul kon nga lo dami ala muto woto fenta kumpala banko kan kata fo bandar banko kan semester abinyu nam gamete trans Merci tout le monde. Je vais te dire euh, bon samedi et tout. Aujourd'hui, c'est quoi Mercredi. Mercredi. Je vais te dire, Antiken, merci beaucoup. Nous apprécions. Qu'est-ce que tu dis euh, Qu'est-ce que tu fais avec nous aussi Aujourd'hui, nous vers contre. et toi aussi, tu es beau et je dis que ce travail mérite une salaire. Merci beaucoup. Merci. Friend dafa sew bu ma rusloo muy Laka. da nga ñibbi Ah, okay. Okay, malaha, ita how did I Well, I'm serious. Nisan. Mm-hmm. Life be no easy. Mina mm-hmm. fa like French, musuda uh, dem Senegal, musuda dem Senegal, musuda dem deka yinga na nyuge French. But then mm. fear musu ko duga. Mm-hmm. And Babu, to be honest, they la like Spanish. Uh, Paski, uh, dem uh, Spain, you know, two months, uh, what they're gonna hear. Um, suma gars yi foofu noonu ñoom back back so ki nga xam ne nag mooy jëbel uh, ak ki nga xam ne nag mooy Nene Suso di jabaram ak ki nga xam ne mooy anti Fatima Ju uh, ak ki nga xam ne mooy Fatou uh, Fatou Ba Assane Ndiaye Pabadou Ndiaye you know Ami Diop ñom ñep jappalé ma bu baaxa baaxa baax fofu ci Spain bugal ma sen boppa fayal ma ticket yobu ma be Spain kon tay fokk ma Spanish ah, dinaa laaka nak lu tuti tuuti tuuti ah, ngeen dega ki su laakee French kii laaka sosé fokk rek ma nit ma laaka ah, naka Spanish kon nag beautiful viewers ngurusa ileguza chalitus ilabusa temtem guzas And then uguzas le le عندنا قزاز لمشاش وحدة نهي على بابو سما سبانيس بباهود نونو buguma gina who's te fek amna you des uh, connect uh, my spain people um, i love you and uh, gramiza Gerebets, Lugas. Connect, thank you very much. baha, baha, baha. Beautiful viewers, you are watching the Gambian Talents TV. Keep enjoying us. Engine, enjoy nulu baha baha baha baha and engine, nu bare bare bare so my camera tv uh, people calling fi my camera people honestly uh, dem bare mangi anda ki um, naka la tudam Fatu Nding Chor and ñi ci bari ñu ñu Fatu dama la like dama la dee gis honestly um Fatu nekku moka ko def Ken defu ko suma camera team ñoko def babu dama nga figure out mm. suma camera team these are two love people na gay dem ci ko dama bëgg gay ñu wonel ma len ka leen kii oyo mo sok oyo na fa ñew man ñew ñëw sa ma ñew na ñu ngi taxaw wa wax len thank you ñu leen wa jere jeuf ci setan bu rafet bi Gambian Talents TV ni rek la len ko defé sa su ne kepp li ngeen bëgg xam ci Gambia bi rek bu len dem si beneen télé ñooñu duñ len dee génne dara Gambian Talents lu xew rek ñu ñu fa bañuñ dara te xewuñ dara buga rek yéen ñu toog fële ne le dem liggéey pour ñëw dimbale a Gambien fi ñun yéen lañ yéen lañ fi nekkal di leen di wax ne jaaraama njoko ja ambitekati thank you aw abanaat boobu lañ leen naa wax te ñu wax ne leen man moom du ma soora du ma di leen di war support leen Gambian Talents ndax ngeen ñuy gën a mun a dem si yeneen ak yeneen si international yi di leen di génneel yeneen ak yeneen soo leen ko buggee da ngeen ñuy jàppale ñun ay ndaw lañ ay ndaw lañ rek di uut waaye yéen tam soo leen si jàppee duñ si mer ngeen dimbale Pa Ousmane bi nga xam ne moom tamit su nekkutoon nag moom ah bu ñaaw de dafay ñaaw de eh kay Fatou Ning Thion ah, next year ndeysaan camera person la and ngeen ko dee dégg tam si news bi ah, moo dee mun a joxe voice over yooyu suma anglais la dee amee ay waa asalaamaaleykum bi wasi maa leen di nuyu di leen sant de leen gërëm si seetaan bu rafet boobu noonu ah, vidéo si yow leen gis Gambian Talents TV bokk si nga ne ñoo ko dee and then comme nu mu ko waxee voice over si so ñu ngi wax thank you very much si Pa Ousmane Diouf ak Gambian Talents board bi yëpp Pa Ousmane Ngenawa thank you man ak Gambian boot bi yëpp ah madame POJ madame POJ waaw loolu la bëgg a dégg dégg nañ ko thank you every day nag daf ñu dee oo office am moom office am su mënoon a wax dina leen every day mu ooñu de leen di def lii tey li nga def baaxut te defal ni dog leen lii cuuraay ngeen mbaabale ngeen fompa ngeen nu nag képp ku bugg a cuuraay rek ñëw a Gambian ñu ñoo xoolal Gambian Talents rek si cuuraay soo egga si binta bi si Johnson bi rek cuuraay baa ngi laa dugg ba si biir office bi ñëw leen Gambian te sole leen naa ñëwaale bañuñ toogu bañuñ ah, table computer pen laptop ñu bañuñ dara képp li nga xam ne mic caméra yi lights yi ngeen xam ne soxlatu leen ko andil leen ñu ko ñun soxla nañ ko tripod tamit bañuñ ko ba bañuñ dara andil leen ñu ngeen gis nag cuuraay bi tamit da leen koy aywaal parce que ñu dañ bëgg a cuuraay Pa Samba yëpp moo si jaar su nekkutoon nag moom tamit caaf xóom de lambay ñaaw lambay ñaaw te dina ñaaw te ñaaw bi la ñuy bañ jàppale leen ñu nag nekkuñ nag dañoo yëlwaan ba tamit dañ ko soxla soxla nañ ko trop a ah, maa si an ah, bi moom mu ngi def moom waram waaram lañ koy wax waaw billaay ma ne yow noppil waaw ak suñ graduation bi wax nga dëgg xaw ma taxawee ni ma damay feeñ dama war a <laughs> dama war a graduate match soo ñëw leen di jàppa si combat bi képp leen am rek andil leen ñu ko ba ñu nañ ndox parce que gan yi su weer bi gis bokku ca laa ilaa naweeg luñ maa def di ma teree wax nag dinaa wax ah. ndox bugan nañ ko drink bugan nañ ko lekk itam bugan nañ ko suma maas bala may wax ah oh lay dem na jëlal leen ma oh ñëwaat oh, ndeysaan Gambia mu ngi nii de si airport bi sax di dem yow da nga mos dem Sweden ko bu bugg dem Sweden lu fa du dem No, no, no. This is only having cambio. <laughs> léegi fa sama bàyyi nañ la sama xam naa da ngay waaru jommi nga jommeet fa xoolal upal may No, no, no. la <laughs> madam coming ka fo ñaami mo pa os non dorong ke fannin ke wal ma koy ani yaje mo fannin ke kemulu kata sando ibe karanta ala bundata ame kan hanin fen fen wata iko ma koy dum a a solata sutwa ñin temmo min kada kako dinngo miyanko aye karani fo bil sinin sama ake jibira ake konnan pawso bako bot amu mo miyanko kako a sorata puke fonin kewo mako wotan ka fo graduation no min kana rek momo be bantara banko kan in sorati la demar amanke iko ni nyaajo man siya ibe kumbo lo junala so fonse kumbo ngayi tan ga alnadan ay bulol ay ay yamma ay foye na gam maintenance tv ay yajibe a pa ak minge babu na man mom damay wax kan suma bébé Fatou bii laay wax di ko jokkoom jaay di ko jaay ko jigéen ji mun góor man bu nit ñi bu naan Pa Ous waaw gërëm naa ko sant naa ko waaye moom laa fi gis moom laa fi moom laa fi gis moom a fi nekkal moom may advice Fatou Diouf lii Fatou Diouf laa xam nga dafa émotionnel bay ma la ko tuuti li leen wax ne ngeen jàpp si su graduation bi ñëw di bàyyee bébé Fatou mic bi waaye kon nag ba beautiful viewers eh, fii la ñu ak ñu live and direct euh, fi nga bi ak fi nga juma bi ji ñu ngi ñëw I was waiting for this semester right here. maa ngi xaritu sàpp dégg daat saay soo déggee dexim si pasi pasi man la dee jógee. It's time for Semester Avenue. let's have charm let's have fun. ngeen def Gambia Talents hello Serigne Japa Chole indi Gambia. bu ma doon ñëwee fii jaar na more than five different airports si waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma ma fay xaalis lu ma si gën a naxari ma ñëw suma own dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma liggéeye may fay xaalis loolu jaadut. All right, naka sa holiday? It was all right. I enjoy it. seen dëkk baa ngi naat na bu affaire yi naka la su ngelaw bi mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. foo naa ne c'est perfect time ak yooyu. dama just ñëw rek dama ah. dama ñëw ñëw ma holiday dama dellu si. dama dellu si. I left here since 2015. Uh, uh-huh. so maa ngi soog a ñëw a nama. Dumoda. <laughs> Man, Durang, Durang. Durang. Wow. You like it with loho or with kudu? I like it with pan. With hand. Uh, ah, yeah. Ah, sama sana. Mana ke burung bus? Man, bus. Mana ke sini capa col burung? Mama ada meye bus. Aku